alladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufaan ahad wa salawaatu llahi wa salaamuhu ala tarjumaani lisaani alqidami almahfuuz wa nuuri saari almamduud alladi laa yudrikuhu daarikun wala yalxaquhu laaxiqun الصراط المستقيم ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق كنز الأعدم نور المتلسم وصل اللهم عليه وعلى آله صلاةً tucarrifunaa biha iya wa radia allahu an qutubi almaktuumi walbarzaxi almacluumi alladi ducaauhu ka saarimin battaari madaduhu ka sayibin midraari mumiddi kulli awliya arrahmaani abil abbaasi ahmad attijaani radiyallahu taala anhu wa an jamii xulafaihi ridwanullahi taala alayhim ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñu may ma rekk ma bañ a guddal ci nuyoo bi bay jeexal xaj suleymaan dimbalee ma lenn balaa ma jeexal mu jox ma not fàttali ma turu kilifa yi fi teew donte xam nañ ci ñu bari wala xam nañu ñépp bu dul ci turit ci jëmm ñu nuyu leen ziyaara leen tatagal leen waaye mënumaa tëb mukk walla di xaar nuyu maamu ki nu war a waxtaani teewaayam ci conférence bi taaral na ko ku ñuy waxtaanee maam Cheikhul Hadj Omarul Fouti al maam Cheikh al Hadj ab tuuri alxalwaari alfuuti cheikhul xaaji umarul fuuti ab tuuri algedewi alxalwaari moom lañ war a waxtaane sëtam ñëw teew xanaa loolu mooy li sàmm si di def bu ñu bëggee ratt nag jël doom ja yeew ca tànk ba ngir gën a yombal dikkug soow ma ngir ñu mën ratt meew ma walla dikkug meew ma ngir ñu mën koo ratt wolof di wax ne ku bëgg cerey jaboot na doom ja yaangu ku bëgg cerey jaboot naxal ko doom ja bu ñuy waxtaanee Cheikhul Hadj Umarul Fuuti fii ci tubaab jalaaw fii ñu koy waxtaanee tànkam mos fee dëgg Cheikh Al Hadj Umarul Fuuti fii ñu koy waxtaanee dikk na fi ni nga xamee ne noonu la defee tuur ci àdduna bi mooy wëliyu bi ñu xam senegaal mu ëpp lu mu tukki ci àdduna bi Cheikhul Hadji Omar li mu dem ci réew benn sëriñ ci Sénégal demu ko fa ba muy tukki tukki xewagul ci waxin ba muy tukki tukki yombut mu wër àdduna bi te loolu buñ duggee ci biir waxtaan wi yoonu màkkaam wi ngay xamee ne def na tuuru àdduna bi yamu ca mais mu wër senegaal Kajoor Bawal Saalum Fuuta amul fu fi seexu bàyyi wëram yooyu mu doon wër àdduna bi moo ko indi woon fii ci tubaab jalaaw ndax fu ci nekk am na lu ko fa yàlla wan mu ñëw am dëggal gu muy dëggal kéemtaanu yàlla gi def yàlla def foofu noonu le bàyyi fa lam fay bàyyi dem bërëb yi yàlla defoon leer yëpp yàlla wanoon na ko moo tax tànkam dëgg na fa ci senegal bërëb yooyu bërëb bii ñu koy waxtaanee tey bokk ci muy tubaab jalaaw wala sëriñ Samba Touré wax na ko léegi waruñoo nangu ñuy tudd tubaab jalaaw di tudd safaat ngir yàllaa maa lee ko jëmm ju tedd jooju muy Cheikhul Hadj Mamadou fuuti ñu koy waxtaanee sëtam ñëw teew muy Thierno Seydou Nourou Thierno ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay di am mbégte ci sa teewaay ak jëmm ji nga àndal muy Serigne Cheikh Omar Ndiaye ñu xamante lu yàgg bokk nañu malaan wadifa ba tàyyi ca Pikine Lansar defe naa jamonoy 2004 5 6 7 année yooyu néew na bu ñu bokkul malaanu wasifa fajar moom la se moom la Cerno àndal mooy nit ku baax di nit ku sell ñu am mbégte moom it bi ñu ko gisee ñu baal ma rek ma tudd ñaar ñooñu ndax ñi ma jegeek ñi ma sori ñépp ñu ma war a tudd fi ni te bu ma ko toppee day gën a gudd te bu boobaa day gën a guddi day gën a gudd te bu boobaa day gën a guddi li may dooree rek mooy fàttali ne Cheikh Al Hadj Omarul Fouti waliyu la Cheikh Al Hadj Omarul Fouti waliyu la kan mooy waliyu Cheikh Al Hadj Malick nee na xasrul wilaayati fi taqwa saadatuna wa jaa fi suurati lamfaali daa alani mu ne bu ñu bëggee noppalu wilaaya ñu naan di wëliyu la ak du wëliyu mu ne nañu tënk wilaaya rek ci ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla rek jàppal ne moo la gën a doon wëliyu Cheikh Al Hadj Omarul ca biir ñooña la bokk moo tax ma ne wëliyu la kan mooy wëliyu mooy ki yàlla xaritool ne ku xaritoog moom ma jubook yow mais ku ko noonu ma déclarer la guerre alquran ba alquran jeex kenn dong la yàlla déclarer guerre mooy lekk katub riba xadiisul qudsi ak xadiisul nabawi ba mu jeex kenn la ci yàlla déclarer guerre mooy kuy noonu waliw boo demee ci saywul buxaari xadis six mille cinq cent deux xadisu abi xurayra yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha qaala man aada li waliyan faqad azantuhu bilxarb wa ma taqaraba ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mimma aftaradtu alayh wa ma yadaalu abdi yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibahu fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bi wa basarahu alladi yubsiru bi wa yadahu alladi yabtishu bi wa rijlahu alladi yamshi biha wa in saalani la utiyannahu wa la in istacaadani la ucidannahu wa ma taraddadtu an cheyin ana faacilu taraddudi an nafsi almumini yakrahu almawta wa ana akrahu masaa tantahu yéeme na de résultat bi la yàlla mujjee walla liy jur kon résultat bi la njëkkee liy jur résultat bi mu mujjee ko lii taxa doon wëliyu la yàlla mujjee mujjee njëkkee waliyu bi ci boppam daf ne képp ku noonu sama waliyu man yàlla déclaré naa la ger lan mooy mu xaalif bi ku noonu waliyu yàgg yàllaay xeex loo ciy déggee ku ko bëgg nag ah kon doon xaritu yàlla moo tax waa koskaas bu tubaab jalaaw li ñu def day wane ne xaritu yàlla lañu luy firnde bi mooy bu nu bañoon Seexul Xaaji Omar duñ ko tàntal walla de sëñ Ibrahima yenent bi moo ne yàlla moo ne ku bañ sama waliyu man yàlla ma déclarer la guerre kon safaan bi loo ciy déggee lan la lan ngay déggee ci biir ku ko bañ kon ku ko bëgg nekk xaritu yàlla kay yàlla nag di wax li nga xam ne mooy tax mu dem ba nekk ba nekk waliyu bi daf ne jaam bi amul lu muy def pour jege man lu ëpp solo muy jëfe li ma ko sant ci farat mu ne jaam bi du deñ di ma jege jegelu ci ay naafila ba ma bëgg ko su ma ko bëggee maay doon noppam yi muy déggee doon bëtam yi muy gisee doon loxoom bi muy tàllal doon tànkam yi muy doxee loolu foor na de moo tax wali yi buñ demee ba yegg ci yàlla naan anallah man maay yàlla fa ñu toll di ko wax duñ ci am bàkkaar de mais ku fa tollul boo koy wax di génn ci lislaam ndax ñoom fa ñu toll ba naan maay yàlla xadis bii moo koy dëggal moo yàlla moo ne su demee ba jaam bi pare ci li ma ko farataal di jëfe ay naafila damay dem ba man yàlla ma bëggal ko sama bopp may doon loxoom bi muy tàllal di ko jële noppam yi muy déggee bëtam yi muy gisee man yàlla maa koy doon anallah man maa yàlla waliyu bi ko wax mënatumaa génn yàlla li ma sant sama lépp yàlla laa ko jébbal waaye nekkuñ yàlla juy dox fii di dem marché di ñëw déedéet ci lañ waxee woon ne maa raaytu shay'an illa wa raaytullaaha fii amul dara lu may xool lu dul gis naa ci yàlla ci biir loola ki déggul seen wax ñëw naan lii yàlla la portable bi déet balaa ngaa yëgg ci niveau ne portable bi yàlla la day fekk nga yëg ci niveau mën a gis soppax ndiku yàlla ci portable lu ko moy boo ne portable bi yàlla la génn ci lislaam loolu la am solo la maa jug mais ñu ba ko xel xadis bee ma ci dugal moo tax Cheikhu Tidiane ci jawaahirul maani ñaareelu xaaj ba bëri na wax yu nit yàlla yi waxoon boroom xam-xam yi déggul seen wax génne leen ci ci lislaam na Cheikh firi ko ba mu leer nañ te yii rek bokk na ci lu simple xaddis bii la yàlla wax ni jaam bi du dëñ di def li ma ko farataal pare ca di def loo xam ne farataaluma ko mooy ay naafila nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba man yàlla ma bëgg ko xataa uhibbahu fa ida ahbabtu su ma ko bëggee kuntu man yàlla may nekk samahu déggam alladi gi nga xam ne yasmahu bi mi ngi koy déggee noppam mi man yàlla lay doon wa basaru maay doon gisam alladi gisam bi nga xam ne yubsiru bi moom lay xoolee bëtam yi muy xoolee man yàlla lay doon waaye wa yaddahu alladi yabtisu biha maay doon loxoom bi muy tàllal di ko jëlee ak di ko nangoo mu ne euh, wa rijlahu alladi yamshi biha maay doon tànkam bi muy doxee boroom xam-xam yi nag nu ne déggee nañ ko ko ci firee ko ko léegi yow wax ji nangu na taawil léegi lan moo tax doon nangu waxu nitu yàlla bu ne man maa yàlla ñu taawil wax ji nga naan rek il faut dafay génn ci lislaam xadis bi kon duñ ko taawil kon xadis bi léegi du wérati te sayiwul Buxaari la nekk xadis bi wér yàlla dane kuntu man yàlla may doon sam'uhu <laughs> ah mais léegi nan la yàllay doonee déggam yàlla nu muy doonee say nopp nu muy doonee say bët nu muy doonee sa loxo nu muy doonee sa tànk akay ah, fa la mbir yi nekk mu ne bu àggee foofu nag wala in sa'alani la utiyannahu lu ma laaj ma jox ko Cheikh Al Hadj fuuti Fouti ci biir waxtaan wi dana leer ijaaba kenn dabu ko ci bari na taal yu tàkk ci réew mi seexoo ko taal seexu mhm. ku mu taalul sa taalit ñëw na fekk nga taal sa taal mu sotti la ci pétrole mën a jëppét du ma ne kër yëpp mais bu dee téeméeri këru diine Sénégal juróom-ñeent fukki yëpp loxo seexu ca biir bu dul ci côté diine ji nekk ci côté tarixa bi bu dul ci côté ñaari ijaaba seexu dagaan nga ko ba yàlla defal la ci la nga bëgg firnde ba maam faa wadde wele ñaanu seexu moo taal seex seydil xaaji malik tiwaawan ku tudd réew mi tudd diine sa xel dem ci ak fan ah tiwaawan ak fan tuuba tuuba ñaanu seexu moo ko taal du neex a dégg de mais nañ déglu jamono léegi daraa neexu la waxtaani ndax loo wax ñu ne déggal sama sëriñ fi man mi ngi yëkkati sëriñ bii ci kaw sama sëriñ te mbir yi du foofu sëriñ si li taxoon ñu doon sëriñ dañoo nanguloon seen moroomi sëriñ ba xëy doon sëriñ seexu bi muy wër di wër senegal mbakke jaar na fa fekk maam jaara ma ngay root ca teen ba xisa ba xanaa yéen ñëpp dégg ngeen ko ah maam jaara ci bëggam lu baax ak xam ne seexu boroom cër la ak lël bi mu àndal mu dem jël seen naanuwaay yëpp rootal leen ko yañ yoroon yëpp mu rootal leen ko daldi sàkku ci seexu ne ko dafa bëgg mu ñaanal borom këram Mamor Anta Sali ndax dafa am méttitu ginnaaw gu koy sonal méttitu ndigg cheikhu ne ko moom li li aadaam mooy bu xasee di dem bu demee du dëppati du wane ginnaaw te mi ngi génn mbàkke léegi na ko maam dab mu dem wax ko maam ci woyofam mu génn dab seexu seexu bi mu ko gisee dana ko yow sa ndigg méttiwul dafa amu wëliyu bu nekk ci yow loolu moo lay sonal waaye doxal nga dem dikkaat mu dox ñëw mu ne ko sedd na mu ne ko loolu du dara mu ne ko nag lii gannaaw daj naa ci coono bu ne te si diggante wii yëkkatuma métit danaa la gunge bu dul woon ak soxlay njaboot ma topp la ànd ak yow ci jihaad ji mu gunge ko ba yegg bërëb bi ñu tuddee Touba tey mu ne ko yàlla am na lu ma woon ci bërëb bi màndargaal ko boo ko sañ tutit sa njaboot gii dana ñëw sanc ko xanaa loolu firnde la maam faa waat dewele sërëm ba moom nettali nañ ko ba mu toq seen nopp ba mu demee ba participer ca jihaad ja sërëm ba mu yóbbu woon jox ko bi mu jëlee sër ba tàllal ko ne fuuta taal moom seexu fuuta taal sëru kii jox ma lii sërëm bii mu participer ko ci jihaad jii doomu borom sër bii fii ma taxaw ci Oré Fondé ba xeer wële ca ngor doomu borom sër bi dana ko lal ay malaan yu weex tal ñu tiim ko di tudd yàlla te fetal du tàkk jaasi du jóg ak yu bari ya ca xew xisa bu gudd la ijaasa ba mu bindal maam ma yoro ak la ca aju fekk laataa loolu jox na wér doom maam faawa di wele Cheikh Al moom ak maam alfa la joxandoo wérdu boobu mu ngi jugee koo ci aj gi bi mu jógee aj gi li muy daj daj coono taxul mu noppalu dafa noppalu tuuti rek di wëraat senegal ginnaaw bi mu jógee ci ajam gi la jox wérdu maam Alpha ci la ko joxaale maam Fawad gannaaw gan nag jihaad ji appare la ndax dem na Màkka ba ñëw wëraat senegal soog di jot ndigal ci yàlla pour taal jihaad ji boo duggee noonu kër maam Cheikh Al Hadj Abdoulaye seen ijaaza seexu participé na ci Thiénaba seen ijaasa seexu participé na ci noonu nga koy wëree ñii ma tudd nii xanaa ku leen tudd senegal xaw naa daj kay moo tax ma ne fu mu ci taaluti taal ba fa tàkk seexu sànni na ca pétrole kon dugg na ci biir xaddis bi yenenti bi wax ne yàlla nee na sama jaam boobu lu ma ñaan ma defal ko ko su sàkkoo it ma musal ko ma muccal ko loolu benn la lu wane ne lii ngeen def lu am solo la mooy tàntal nitu yàlla di ko waxtaane ndax ci bëgg ko lay bëgg lay dugg te ku ko bëgg yàlla bëgg la ndax lan mooy mafhumul muxaalaf bi ñuy déggee ci xadis bi mooy ku noonu waliyu yàlla déclaré la geer kon ku bëgg waliyu yàlla defal la mbaxuus beneen bi waxtaane leen yiw la buñ leen di waxtaane yërmande yàlla day wàcc kan moo wax loolu imaam ahmad ibnu hambal moo nettali ne dégg naa safiya sufyaan ibnu uyayna mu ne tatanadalu rahma inda dikri saalihin yërmande yàlla day wàcc bu ñuy tudd ñu baax ñi te seexu ci ñu baax ñooñu la bokk kon fu ñu leen di tuddee yërmande yàlla dafay wàcc ibnul mundir nettali na wax jooju ci ahadis fi dammil kalaami wa ahli sawri yi ne inda dikri saalihin tatanadalu rahma moom noonu la ko waxee ne bu ñuy tudd ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc boo demee ci ixyaawu ulumi diin bu imam Ghazali ca ñaareelu xaaj ba xëtum ñaar téeméer ak fukk ak benn wax yu sawri jooju noonu le ma nga fa muhammad ibnu yunus ne maa raaytu lil qalbi anfaa min saalihiin gisuma lu gën a mën a jëriñ xol lu mel nit waxtaanee ñu baax ñi nee na gisuma lu ëpp solo ci xol lu mel ni waxtaanee ñu baax ñi boo demee ci muxtasaru muxtasaru sifatu safwa ca juróom ñaareelu numéro ba wax jooju noonu lee muhammad ibnu yunus wax ma nga fa mhm. imam saxaawi am na téere bu mu tu tuddee ko a tawbiix ala man damm taarix mi ngi fay nettali waxu abu xanifatu bnu nucmaan radiallahu anhu mu ne xikaayatu saalihin afdalu indi min kasiiri min alfiqhi mu ne tudd ñu baax ñi di leen waxtaane man Abu Hanifa moo ma gënal lu bari ci waxtaanu fiq ak di ko jàng mu ne di waxtaanee ñu baax ñi moom a ko gënal Abu Hanifa kenn la ci ñu ngànk ñe ñeenti école yi gën a mag ci lislaam waxam jooju noon lee boo demee ci aadaabul qawm euh, wala tartibul madaarik wa taqribul masaalik moom it indiwaat na ko fa ci xaaj bu njëkk ba xëtum ñaar fukk ñett ci tënk kon toog rekk ne dañoo jël tem di waxtaanee ku baax teewe ko rek yéew la ndax yërmande yàlla salafu saalix dëppoo nañ ci ne bu ñuy tudd ñu baax ñi di leen waxtaane yàlla day wàcce yërmande yàlla ñu yàlla defal yërmande ku baax ku nekk waxtaane ko baax na waaye waxtaanee Cheikh El Hadj Omarul Fouti gën na Cheikhu du sëriñu gaañi Cheikhu du sëriñu gaañi du ngeen ma laaj li nga wax foo ko teg <laughs> sëñ Basiir Cheikhul mu Cheikh El Hadj Omarul Fouti. du sëriñu gaañ yi sëriñu sëriñu gaañi la mhm. Cheikh El Hadj Omarul du sëriñu gaañi mais sëriñu sëriñu gaañi la te lu ñu gën a xuus ci waxtaan wi aka neexoon ñu am temps doy ba waxtaanee seexul lu doy dana gën a dëggal sama wax ji fii ci réew mi fii ci Afrique xamuma fi ci sama gëstu bu gàtt fi mu yem waliyu bu yéemee ne Cheikh Al Hadj Omarul Fouti daahiran wa baatinan ndax waliyu léeg yàlla may ko cër lool mu am ijaaba mais xam-xam ba du demee noonu léeg yàlla may wali cër lool mu boole ñaari waaye du mën a bind wali bu dajale yi déglul taal na jihaat moom seexu tuubali buur seexu ay président de la république la daan tuubali seexooy dugg ci dëkk tuubal ñépp jàll ñépp jàppal jàng na ba dem misra Caire Caire iniversité ba boroom xam-xamu misra yépp Cheikh Al Hadj Omarul Fouti loo leen ñu koy laaj muy tontu ñu koy laaj muy tontu masala muñ ko laaj mu tontu ñii dañoo dugg ak moom ci wàllu xam-xamu xadiis ñii dugg ak moom ci tafsir ñii dugg ak moom ci luxa ñi dugg moom ci balaaxa seexu di tontu ba ñépp àndandoo nangu ne seexoo leen raw te keer jamono yooyu noonu la dañoo defoon ci seen buntu dëkk loo fi jaay boo duggee sa junni morom a ngi fi seexu ñëw ne leen balaa tontu ci lañ koy laaj loolu dañ koy dindi ndax moom mënagul xam ne junni moromam ñi ngi fi fekk jëpp waxtaanu lak ñoom ba noppi <laughs> gaa yi daal di nangu seexu waxtaan ak ñoom du ñàkk dana feeñ ci biir waxtaan bi bu ñu fa tollee ñu mujj nangul seex alxaaji Omarul Fuuti ne moo leen man ñu ne ko yow xanaa ku mel ne sa baay moom gannaaw yow yaa mel nii amul ci Sénégal ga nga bàyyee ko mu ne ñu ku mel ne sama baay bari na fa ku mel ne sama yaay daa fa gisul lu am solo la ci la ñuy ubbee waxtaan bi wane ne li mu am yaayam participer na ci lu rëy moom Adama Isa moo tax ku fi taal ku fi tàkk rek ku fi tàkk kumu borom musóor yi kol yi ñoo la taal te buñ ci tollee léegi balaa yàgg dangeen gis lu tax ñu wax lu mel noonu Cheikh Alhaji Fuuti yi ci xam-xam ku dem ba Keer wedam loo borom xam-xam ya dem ba Jérusalem baytil maqdis wedam loo borom xam-xam ya ci ajam gi bi mu diiran mu nekk mu jaawara bi ci Makka ak Madina diggante bi bàyyi na fi Cheikh Mouhamadul Ghali dem Palestine ndax doon ko ziyaara ji miracle yu bari Cheikhu def na ko fa faj na fa doomu buur bu doxoon faj na fa suruf boo xam ne dafa tàqalikoon ak sagoom ba mënatul jàng Faatiha te mokkaloon na alxuraan seexoo ko faj ba lum jàngoon yëpp dellusiwaat ci moom borom xam-xamu Jérusalem yëpp dajaloo seexu wedam looleen mujj gi bi muy jugee Jérusalem buur ba gëlëm la ko duyal or ba mu fees boole koog mboolem lu doom jam fajoon amoon ci alal yëkkati ko jox ko Cheikh Omar mu ànd ak délégation mu delluwaat ma Madinatul Munawwara bi mu delloo la jëlaat lépp jox ko hadiya mu Mouhamadul Xaali ci xam-xam kon miracle la ci kan ci réew mi ku ngeen xam moo dem bitim réew jommal boroom xam-xam ya seexu ngay dégg moo daan wax ne. bu ñu lakkoon téere yépp toog nangami ët ma ma bindaat yépp te duma soxla di foriwaat beneen téere pour bind téere yooyu Cheikh Al Hadj Omarul Fouti kutubu sitta Sahih Bukhari Muslim Abu Dawud Nisa'i Ibnu Maaja ci bopp bi la doon fanaan daf ko mokkaloon di ko tari ne Faatix te dana feeñ ci biir waxtaan wi am na téere boo xam ne bi mu koy bind bi muy retourné la di jógee koo ci aj gi am ñu mu doon jubale def ko ay woy indi ci ay aaya ak i xadis référence yu bari ci borom xam-xam nee na nag boobu taam xat na xat gu toll ni amul jotu di dell ci téere yi di xool li mokkal ci bopp bi rek la doon bind te nee amul jotu toog day dox di bind day dox di bind kan moo yegg ci niveau bu ñu lakkoon téere yi nga man ko bind Cheikh Al Hadj Omarul Fouti ban waliyu ku dul Cheikh Abdul Qadir al Jeylaani la nettali weeru koor mu daan woor te amoo lu dul un mois danañ ci toll léegi ci waxtaan bi ci miracle mi la bokk ak yeneen dama bëgg rek introduction bi ma am yu ma ci sànni yu la wan ne la seexu du moromu gaañi pour ñu nangu ko jàll sans par par la sans par parloo par parloo nag boo amee ku nekk mën nga ñoo ne sama waaye fi man d'accord waaye maa fi man maa fi man joo xam ne heure boo xeexee ñu folal la say dàll war ngaa xoolaat sa bopp nag mais li feeñ rek amu ci morom ci matière yépp nag te jamono yooyu la ñeen ñu doon wax naan xam-xam tasaarooguloon yëguñu li xew daam ñoo xam ne dañoo dem ñoom ca xadara ba la ñuy naanee ju téere yi ñu soxla mhm. am na ñoo xam ne masala mu ñu toll sunu borom dana leen orienté jaaree ko ci rasulullah yi ci barkeem ñu jëli masala mi ci téere borom xam-xam biñ ko soxla loolu da nga mën a comprendre naka lañ mënoon a dajale téere yu bari yooyu noonu la te ñu doon wax ne bunt yu ubbeekul woon mais xamuñu seexu moom loolu moom ku xamul xanaa mais koo xam ne ni nga yilifee woon nit ñi nga yilifee jinne yi soxla téere fii tey jinne yi dem Palestine indi la ko du dara te ni ma amoon taalibe ci nit ñi la amoon ay taalibe ci jinne yi loolu nag waliyu bu donn yonent bi di nga ko am ndax yonent bi ni mu ni ko yàlla yónnee woon ci nit ñi la ko yónnee woon ci jinne yi al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yee doon yonent yi ku ne doon naa yonent te bu jinne génnee nga daw waxoolu am boo doonee yenent bi da ngay doon waale jinne yi mhm. qul hiya ilaya annahu sama annahu stamaa nafarun fa qaalu ah déedéet qul hiya ilaya ilaya annahu stamaa nafarun min al jinn akay mu ngoog fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amana bi wala nushrika bi rabbina ahada ku donn yonent bi da ngay donn waale looloom kon côté boo boo làmbu seexu maanaam foo interroger seexu rek mu mat ko sëkk soo ko ca dugalee aywa ñu tàmbali conférence bi loolu ñamale gi ñamale gi la woon ñamale gi woon ñu tàmbali conférence bi ki ñuy waxtaanee Abu Hafs lañ ko doon dàkkantalee Umar mooy turam doomu Saïd Saïd mooy baayam di ngeen dégg ñu naan alfuuti ñu ngi ci jublu fuuta la dëkk dingeen dégg ñu naan tuuri di dàkkantal diggante fuuta tooro ak fuuta cerno fuuta jalaaw fuuta tooro ak fuuta jalaaw léegi moom ci fuuta tooro la bokk moo tax ñu naan atuur yi maanaam fuuta tooro dingeen ngeen dégg ñu naan alxalwaar xalwaar mooy dëkk ba mu ganee àdduna waaye dingeen dégg ñu naan algédewi mooy askan wi mu bokk dañ naan Umar ibnu Saïd alfuuti altuuri alxalwaari algédewi muy doomu ñaari waliyu bokk ci askanu wilaaya ñim bokkal ndey ak baay yëpp ay waliyu la cër boobu yàlla defal na ko yamu ca de mais am na lu ma téeméeri doom ñëpp waliyu lañu beneen miracle la ngi noonu nit mën na doon waliyu mais lu génnee ci moom yàlla garanti lu ko waliyu seexu yàlla may na ko ku mu am waliyu la téeméeri doom ma am na lu ma téeméeri doom Cheikh Al te ku nekk ci ñoom waliyu la ku nekk ci ñoom firnde li li liy wane le waliyu la mooy ñëpp mokkal alxuraan doomam yi mu am yëpp loolu mooy li gën a jege ki naan ndax loo nekk nañu waliyum déet mokkal nañu alxuraan pour nga comprendre lu tax ñu ne ñëpp waliyu la baayam mooy Saïd maamam mooy Ousmane ibnu Muxtaar yaayam mi ngi tudd aadama ñu bari di ko tuddee aadama Aïcha ñu yem foofu ndax ay maamam dana feeñ ci biir waxtaan bi danga koy topp ba ci Uqbatum nu Amir nga dàkkaat maamam topp ko ba ci ba ci Quraysh Fihr am na càll la seexu gu dem ba ci Fihr nga dàqaat beneen càllalaam mu dem ba ci imam Chazali ndax bam ba mu jommalee waa Palestine biñ ko laajee yow foo bokk dana deretu imam Abil Hasan As-Sajali la dana feeñ ci biir waxtaan wi bu ñu fa tolloo baayam nag maam Saïd nekkoon nitu yàlla firndeli mooy bu daan dem tool baayu Cheikh Umar toolam yi dafa sori woon fi mu dëkk waaye ngir bañ a yàq temps ndax tool yi sori na suy génn këram faatiha lay tàmbali di jàng mu jeex mu songu baqara mu jeex mu songu ali imran mu jeex mu songu nisaay mu jeex mu songu mayida noonu la koy toppee bu yegg ci tool bi diggante këram ak toolam kaamil bu wàcc mooy tax mu yegg fa day dox di jàng alxuraan ba yegg ci tool yi bàyyu Cheikh Oumar bokk na ci liy wane wilaayaam këram liy dal yonent yi moo ko daan dal mooy ñàkk dépense maam Saïd barke sët yi coono maam yee ah Cerno barke yii coono maam yee Tiwaawan Tuuba ak Njaasaan ak Canama boo demee teraanga yi ne gàññ coono maam yee mooy barke yii te kenn mënu ci dara nag wax du ko dindi de bis kër gi dëgër amuñu lu dul benn kilo dugub maam aadama aysa togg ko bañ war a koo jëfandikoo am yalwaankat bu taxaw ci bunt bi ne fii sabilillah seexu ne ko jëlal lépp nga jox ko maam Cerno Sayid soxna si jigéen ak njaboot mu ne ko alaaji xanaa da fàtti ne kër gi lii rekk a fi mu ne ko jox ko ko tëñ xaar yàlla soxna si ci dégg ndigalam mu yëkkati lam defaroon yépp jox ko kadoon doon yalwaan daal toog góor gi romb ko dem ca jàkka ja am na ku nekkoon xalwaar ku ñu wax Ahmadu Mustafa daldi di yëg ne maam saxiidu këram amuñu dépense mu daldi dem wax surgaam yi ñu dem ci sàqam lañ fa dencoon yépp ci dund ñu sëf ko indil ko maam Saidu ñu sëf lépp indil ko ko fekk góor gi jógeegul ci jumaa ja de maam Saidu bi mu jógee ci jumaa ja ñëw maam Aadama moo ko gàttandu ne ko yàlla gaaw lu muy faye suñu kilo dugub bañ joxe woon yàlla remplacer nañu ko ay saakuy saaku dugub mu ne ko man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifu lahu ana kan mooy lebal yàlla lebal gu rafet yàlla fulal la la ko rafet la ko lebal lii yépp lebal gu ñu lebal yàlla moom lanu yàllay fayee maam Saïdu moomu loolu doy na rek pour ñu xam woy juru Seexul Xaaji Omar ne borom cër la woon du ko ndaw waaye boroom xam-xam la woon ndax ci ñi génne université piir la bokk maam Saïd ci ñi génnee université Pire ci la bokk mook ponkal yu bari ci Fuuta université bu piir lañ jàngee université boobu góor gi Xaali Amar Fall moom moo ko sañc moom moom mag ñoom Cheikh El Hadj ñépp ñëpp waaw xaali Amar Fall moom ca mag ña la université nag la baayam génnee maam Seydou ñoom imam Abdul Qadir bu Fuuta ñoom ñëpp ñu ngi génnee iniversité bu Pire ak yeneeni i boromi xam-xam tabaxa par tabaxa la li gars yi jàngee université naan kii ñoo bokkoon promotion akay université bu Pire tamit dafa am ñu daan bokk promotion Thierno Saïd ak ñoom Cheikh Abdoul Qadir ak ñoom imam euh, Siré ñoom ñooñu ñoo bokkoon benn promotion ci gàttal kooku mooy baayam ñu ñëw ci yaayam Adama Aïcha Adama Aïcha moo doon aawo maam Saïd bokk na ci li yéeme li mu def wujjam moo ko takkal boroom këram jigéen ñi seen mbaax moom foofu yeggu maam Adama Aïcha taabalam la doon daaj ci buntu kër gi la daajoon ci buntu kër gi di jaay jaay yu sew bénéfice am da koy condamné su condamné bénéfice ba ma mat dara mu dem jox ko ba mu ko condamné ba mat dara mu jox ko bàyyi Baye Seydou ne ko demal nga utal ma ci wujju mu may jàppale ci kër gi wujj wi sëy si néeg ba gënoon a baax ci kër ga mu nekkoon néegam mu génn ko jox ko wujjam bis maam Saidu aye ci wujjam yónni ko deram ci néeg bi muy jaamoo yàlla soxna si dem jëli der bi laataa muy ñëw góor gi xëy na fàtte na walla mu bëggoon ko test mu tëj bunt bi soxna si yenu der bi daldi taxaw ne sama boroom kër yi yónni ma ma ñëw joxuma ko lim ma yónni delloo ko du teggin monsieur le maire amin yónni ma jox ma jox ko lim ma yónnee teggin benn mu yónni ma it ma ñëw fekk ko mu tëjoog soxnaam ma leen di fëgg du teggin ñaari gag-gag gaar ko fi mu taxaw delloo ji der bi ak fëgg boroom këram mu ne du delloo der bi te du fëgg boroom këram hee bu doon tey waxuma li wees de waxuma yaa dem kon kondaane sa boroom kër nga takkal ko soxna waxuma boobu de waaye na dem moom na takkali boppam soxna moom ba ngeen bokk kër gi yéen ñaar mu yónni la nga ñëw fekk mu tëju ba nga fëgg bunt bi walla nga ne ko kii mooy yabaate waaye soxna si ca cër ba ak dal ga ak teggin ya mu ne duma delloo ji der bi te duma fëgg bunt bi xamoo nu mu def yanu taxaw der bi ta téye der bi yanu yanu der bi taxaw guddi guddi ba fajar fi mu taxaw jógewu fa mam Saidu bi mu yeewoo ci fajar gi rek ubbi bunt bi ne kàccat gis aadama taxaw mu ne ko aadama ay sa looy def fi mu daal di sëgg ne ko sang bi biig yaa ma yónni woon der bi ma ñëw fekk la nga tëju ma lay fëgg du teggin ma delloo ji der bi tamit te indi lu ma la ko du teggin ma ne naa taxaw rek xaar la heure boo ubbee jël der bi ma dem tëdd góor gi yaram wi daw xaal bi yëngatu mu ne ko maa ngi lay ñaanal yàlla mu may la doom ju baax kariman saalihan taqiyan faiqan aqraanahu fi l ilmi wal ibada wa taqwallahi fi sirri wal alaaniya maa ngi lay maa ngi ñaan yàlla mu may la doom ju baax doom ju ragal yàlla doom ju tiim maasam yépp ci xam-xam ak jaamu yàlla ak ragal yàlla ci lu nëbb ak lu feeñ doom joo xam ni turam day daj àdduna bi maa ngi ñaan yàlla mu may la doom ju mel noonu fekk na jamono yi mu koy ñaanal ñaan gi boobu soxna si yaramam mi ngi tàng teguñ ci diir seexu gane àdduna góor gi bi mu ko ñaanalee ba yàgg mu ne ko dogu naa ci yàlla ne dana la may doom jooju noonu li dogu naa ci yàlla ne dana la may doom jooju noonu la xoolal am na yeneen yeneeni doom de mais ñaanalu ko awlaat ay doom mais dana ko yàlla nga am doom joo xam ne doom ji kenn dong moo ko yitteel mu sànni bal bi ci kooku muy Cheikh Al Hadj Omarul Fouti mu ñaanal ko ba mu yàgg ne ko dogu naa ne yàlla dana la may doom jooju noonu la yàlla dogal na mu am fukki doom yu góor Euh, am fukki doom yu góor ak yu jigéen am na fukki doom moom Adama Aïcha ak maam Saïdu yu góor ak yu jigéen taawam mooy Fatima Tall mook Cheikh El Hadj Omarul ñoo bokk ndey ak baay Ibrahima Tall Umu Kala Tall Salama Tall Zeynab Tall Siré mais Siré dafa faatu ci ndaw tafsir antumaan taal alpha ahmad taal cheikh habib taal ñu ko doon tuddee cerno bookar fukki doom yi la maam aadama aysa am ñoo cheikh umar ñoo bokk ndey ak baay am na yeneeni doom yi mu am ak yeneen soxnaam moom maam saidu ku ci mel ni aliyun taal ak osmaan taal ak roqiya taal ak xafsa taal ci soxnaam siñ doon tuddee Aïcha bintu Abdallah dëkkoon ca xalwaar am na ak moom ñeent doom yu bokkul ak yam am ak soxna Adama Aïcha mais Cheikh Oumar juróom-ñeent la bokkal ndey ak baay yan kéemtaan moo feeñ bi Cheikhu di gane àdduna dana dikk léegi bu ñuy indi taarixu at mi mu gane àdduna mi ngi gane àdduna 23 ci weeru saabaan ñaar fukki fan ak ñett ci weeru baraxlu ci la gane àdduna kéemtaan yim indi bokk na ci bi seexu gane àdduna fajar la gane àdduna fajar googu rawul yaayam fajar gi yaayam dafa sangu ji julli ko lay topp jigéen tax mu toog ay fan walay weer toog di julli toppul maam Adama ay bi Cheikh Al waaye dafa gane àdduna moom seexu soxna si set dem julli am na bindkat bu tudd Muhammad al al Alawi am na téere bu mu bind tuddee ko ad-Dir'u wal Maghfar li Cheikh Ahmad ibnu Muhammad téereem boobu noonu le mu tuddee ad diru wal mixfar moom ahmad ibnu cheikh mohamad at al alawi at tijaani al alxaafad al alawi maa ngi cay wax ca biir ne lam tajlis ummahu an salaati bi mu ne cheikhu bi mu ganee àdduna yaayam waxtu julli rawu ko avant fajar la ganee àdduna avant julli fajar fajar jot mama damaay sa julli na fajar googu muy benn ci kéemtaan yim indaale am na keneen ku firndelaat wax ji ku tudd Muhammad ibnu Muhammad Saxiir ibnu Booja am na qasida raaya bu muy taggee Cheikh Al Hadj di wax ay karaamaam ma ngi ko cee wax ne wa ummaka laman jabat bi ka lam tada salaatan bi waqtin maa li fawriyati tuhri mu ne ko yow bila sa yaay amee yow Cheikh Al Hadj waxtu fajar raw ko mu ne ndawul set gu gaaw ndaw set gu gaaw muy benn ci kemtaan yi mu indaale xalwaar am na dex gu fa nekkoon ndox mu naqari la dex ga ñu ngi ko doon tuddee jaala lolu dex gi jigéen ñépp fa lañ daan dem di yi mais ndox mi dafa safoon xorom barke cheikhul xaaji umarul fuutil gédéwi bi mu indaale moo tax dex ga ba seexu ganee àdduna keroog fajar ga ba jigéen ñi demee di root dañoo dem fekk dex ga nekk dex ga nekk ndox mu neex muy jaalalulu ca xalwaar ci kéemtaan yi mu la bokk mooy dex gu amoon xorom ñu dem fekk dex ga nekk ndox mu neex barax lu ñaar fukki fan ñett la gane àdduna juróom-ñaari fan wala juróom-ñett lañ ca teg weeru koor feeñ bu ñu nee xëdd jot na ñu xëdd seexu du nàmpati weenu yaayam bañ na ndogu jot na ah ku ko mos def na wax sama sëriñ a fi man nañ seex ndax daan na nàmpam déet bëccëgu weeru koor ku fi nàmp ku ne fekkee nga bëccëg weeru koor mais kenn la histoire moo sa nettali ku def miracle boobu mooy Cheikh Abdul Qadir al Jeylaani moom it bokk na ci miracle am bëccëgu weeru koor daawul nàmp ci weenu yaayam keneen la histoire nettaliwaat mu def miracle boobu mooy góor gi ñuy waxtaanee di Cheikhul Hadj Omarul Foutil Guelawi moo de suñ mbokk fuuta yi am na wëy wu ñuy wëy ci tukkuloo boo koy traduire ci wolof mooy seexu nàmp na rek mooy heure ndogu jot na seexu nàmp na rek mooy heure ndogu jot na xalwaar amuñ woon montre bu ñuy xoolee ndax ndogu jot na am déet biñ demee ba nemmeeku karaamu boobu ci seexu dañuy yebal ndaw mu ñëw toog kër maam Adama bu génnee ween wi jox ko seexu mu seex rek mooy ndogu jot na loolu ci kéemtaan yi mu indaale la bokk cheikh abdul qadir al jeylaani boo demee ci nuurul absaar fii manaqibi ahlil bayti nabil muxtaar mi ngi nettali ne bokk na ci karaamay cheikh abdul qadir al jeylaani moom it bëccëgu weeru koor daawul nàmp ci weenu yaayam keneen la histoire nettaliwaat ku ko def mooy bàyyu wala maamu cernu saidu mii toog di cheikhul xaaji omarul fuuti mii waa koskaas di waxtaanee tey bokk na ci liy wane ni dafa juddu waale wilaaya te loolu yëpp li muy wane mooy dafa juddu waale wilaaya dafa am dafa yoo xam ne nii wahbiya la am yoo xam ne kasbiya la dafa am cër yoo xam ne du yaa liggéey def riyaada sonn ba yàlla may la ko hmm. mais yàlla moo la ko may ci mbaaxam am yoo xam ne nag coono boo daj moo tax yàlla may la ko Cheikh Al Umarul Fuuti cëram daf ko juddu waale. te bokk na ci li indi judduwaale gi gannaaw dogalu yàlla te dogalu yàlla la lépp di dugg mooy baayam daf ko ñaanal yaayam wata jigéen ñi ñu war a góorgóorlu la mhm. ñu wara góor góorgóorlu la maam borom tuuba ñaan lu maam jaara buso bokk na ci li ko may li mu am maam seex alxaaji malik ñaan lug maam faawaad wele bokk na ci li ko may li mu am waaye Cheikh Al Hadj Umarul Fuuti der ba yaayam taxawoon téye ko fajar maam Saidu ñaanal ko ne ko yàlla nga am doom ju ragal yàlla doom ju jaamu yàlla doom ju siiw ci àdduna ba noppi ne ko dogu naa ci yàlla ne da am doom jooju noonu le moo tax doom ji judduwaale wilaaya wala bokk na ci li tax mu judduwaale wilaaya am na benn wali bu nekkoon seen xëyit dafa daan def fu mu toll ca Mauritanie jërëjëf day gént wala dañ koy wan leer gu muy gis ci côté Fuuta mu ngi woon mi ngi woon Mauritanie mais leer gi tout le temps yàlla daf ko koy wan ci côté Fuuta mu xëy bis rek tàggu ay mbokkam ne leen day topp leer gi ko yàlla wan bi mu toppee leer gi bàyyiwul di ko topp di ko topp di ko topp ndekete leer gi leeru Seex al Xaaji Umarul Fuuti la bu waree leer gi ba sonn di ko gis du xam fan la exact ndax ci gént lañ ko koy wan mu delluwaat kañ la leer googu noonu le dagg gisatu ko mooy keroog bi Cheikh Al Hadj Omrul gane àdduna ñu xamal ko ne ko leer gi ñu doon gis waliyu la bu doon gane àdduna ca Fuuta gane na àdduna mu topp ko topp ko ba yàlla indi ko xalwaar muy gëstu ba yëg ne leer ga mooy Cheikh Al Hadj fuuti Fouti mu daal di jël Cheikh Al Hadj Omrul Fouti mi ngi tëdd ca berso mu jël ko taf ko ci dënnam ne alhamdulillahi rabbil alamin bi ko yàlla wanee leer gim doon gis ndekete mooy cheikh alxaaju amarul fuuti mii ca boroom xam-xamu sinqiit ya ca Mauritanie loolu bokk na ci liy wane ne dafa judduwaale wilaayam Sayid Muxtaar Kunta boroom xam-xam bu mag ba waliyu bu mag ba bokk na ci li wane wilaaya Cheikh Alxaaji Omar ne dafa judduwaale cëram ndax bis dafa julli suba rek su jóot su jóot bu yàgg ba jaaxal ñépp ndax yàggaayu su jóot bi bi mu siggee taalibe yi laaj ko ne ko sa su jóot bu yàgg bi la ko waral mu ne dafa am benn hëtif rabbaani bu ma dégg mu ne ci réewu nit ñu ñuul ñi am na ku fa judd koo xam ne tey ci fajar gi nii la judd cëram yàgg na ci dëkk bu mu teg tànkam danañ jébbalu ci moom ma ñaan yàlla nag sama dëkk bii mu bañ fee teg tànkam moo waral sama sujjóot bu yàgg bii may sujjóot ndekete wëllu yu boobu Cheikh Al Hadj Omarul Fouti la miracle yi mooy seexu bëggoon na jaar dëkkam ci tournée bi mais mujj fajaar muy wane ne yàlla nangu na ñaanu seex Muxtaar Kunte boobu noonu la mu ñaanoon waaye di wane wilaaya ak Cheikh Alxaaji Amarul ndax dane wëliyu lañ ma wan boo xam ne dëkk bu mu teg tànkam waa dëkk ba jébbalu ci moom mu bokk nag ci fam ci xam ci fami xam-xam moom Cheikh famille boromi cër waaye famille ay wëliyu boo demee ci rawdu shama'il xaju ji moo ko taalif nekkoon ca faas di boroom xam-xam bu mag bi muy wax kan mooy Cheikh Alxaaji Umrul Fuuti di nettali askanam ak ay maamam yóbbu na ko ba ci muratub nu kaab wala saxaaba bu mag ba muy saydna uqbatum nu amir te càlla la nu amir moo dem ba ci muratub nu kaab xajuuji ci rawdu shamail kon deretam laale naag waliyu boobu de wala saxaaba boobu di uqbatum nu amir moom cheikh alxaaji omarul fouti boo demee ci téere bu tudd taariful ashairi wal xillaan bi shuubi wa qabailil fulaan muhammad ibnu ahmad gën a siiwe hashim alfuuti moo ko taalif moom it ma ngi fay nettali alfa hashim mi ñu xam te mu faatoo madinatul munawara ñu rob ko ko moo bind téere boobu nee na Cheikh El Hadj Omarul Fuuti am na mbindam mum doon mbind di am ñu muy leeralal mooy kan ne leen doonte làkku ajami laay làkk maanaam tukkulóor laay làkk waaye loolu tekkiwul ne bokkuma ci Quraysh de tukkulóor lay làkk mais boo dàqee samay maam dañuy dem ba ci Quraysh ci lay nettalee moom alfa haashim càlla la cheikh alxaaji omarul fuuti ibnu usmaan ibnu sayyidatuna ruqiya bintu muhammad ibnu abdurahman ibnu mahmud ci la koy toppe di ko topp ba ci uqubatu bnu amir mii nu tudd te boo demee ci al isaaba bu ibnu xajar nee na uqubatu bnu amir ibnu lqays ibnu luqit ibnu amir ibnu umaya ibnu darb ibnu lxaaris ibnul Fahr al Qurayshi boo toll toppee càllala Seexu Umar day dem ba ci Uqbatu ibnu Amir nga topp càllala Uqba mu dem ba Quraysh kon ci genn wàll bokk na ak yeneen ci àll Muhammad ay maam ca Quraysh moom Cheikh El Hadj Omarul Fouti kañ la gane àdduna boroom xam-xam yi werante nañ ci ci ñett data ci gën a siiw am na ñu ne mille sept cent quatre-vingt-quinze la gane àdduna am na ñu ne mille sept cent quatre-vingt-dix-huit la gane àdduna ah quatre-vingt-quinze quatre-vingt-dix-huit bu ci nekk tollal nañ kook ay date mais booy tënk dates yi ñetti dates yi la 795 am nañu ne ci at moomu la Cheikh Al Hadj Omarul Fouti gane àdduna mooy 1798 dëppoog 1213 ci hijriya at moomu Cheikhal Cheikhana Ahmad Tidiane ñëwee fas ci at moomu la Cheikh Al Hadj Omarul Fouti gane àdduna dundanoon ak Cheikh Ahmad Tidiane fukki at ak juróom-ñett. moom Cheikh Oumar 18 ans dundandoo na ko ak Cheikhana Ahmad Tidiane waaye mosuñoo gisee nag waaye dundandoo nañu fukki at ak juróom-ñett ndax Cheikhana Ahmad Tidiane mi ngi génn àdduna 1814 ci milaadiya dëppoog 1230 ci hijriya te mu mar mi ngi gane àdduna mille 1798. 1798 ba 1814 17 ans 18 ans lay toll kon dundandoo naag fukki at ak juróom-ñett Cheikhana Ahmed Tidiane mais taxul woon ñu gisee. أخو maa ngi tolloon rek xam nga koy waxtaanee toll ci gane àddunaam dooragoo ñu ngi tolloon ci gane àdduna ak Cheikh wax nañu ne maase na ak Cheikhana Ahmed Tidiane ci bokk dund lu mat fukki at ak juróom-ñett. mu soog di génn àdduna kon ñu tënk ci lu gaaw ba fu mu yem rekk ñu yemale ko fa ba jëmmi jamono xëy na du ñàkk mu am siivi ci beneen conférence ñu wëyal ko gane na àdduna ak i miracle mais mu continue nekk nitu miracle Cheikh Abdallah Seck moo nettali maam Thierno Muntaga ne ko seexu bi mu amee ñett at lay def guddi gu nekk mu jàng ñetti junni qul huwa allahu junni qul huwa junni boobu mi ngi am ñett at guddi gu nekk ci xale bu am trois ans mu jàng mille ixlaas huit la am mokkal alquran waaye tënk la mais njàngum seexu rek miraakal la ndax loo ko bindalaan mu tari ko bi muy jàng loo ko bindal mu tari ko ba muy ne ca daara jaaki moromi ndongoom la leen jommal bokk na ci miracle yi mu def ci daara ja bu ñu demaan di taxani moom day dem tëdd di nelaw du taxan waaye bu nu ñëwee sayam day nekk ca biir say ya mbokk taalibe mi nag xamuñu ko ba bis ñu kalaame ko seen sëriñ ne ko seexu de bu ñuy taxan moom du taxan day dem tëdd di nelaw mu woo seexu mu ñëw mu ne ko yow dégg naa bu ñuy taxan da ngay dem tëdd di nelaw seexu ne leen taxan naa de ñoo gisul sama say ñëpp xale yi juróom-ñeent la ñëpp ne ko taxanul taxanul mu ne nañ konte say yi juróom-ñeent la ñu ànd da ñu konte ko muy fukki say mu leen taxan naa ñoo gisul sama say <laughs> ci ay miracle la bokk ba muy ne ci daara ja la am sawqu ci yenent bi ba bis jóge nañ ci taxan moomu ñu taxan kenn ku nekk di sàkku ñu ñaanal ko lim bëgg ci yàlla kenn ku nekk naan lii laa bëgg doon ñu ñaanal ma lii ñu ñaanal ma lii am na ku mbokkandoo doon daara ku tudd Cheikh Abdallah mooy Cheikh Abdallah aaw dëkkoon xalwaar nee na xale yi ku nekk bu waxee soxlaam ba noppi seexu moom lii la wax ne moom laa bëgg ne dama bëgg jàng xam-xam yépp ba peeg ko te boobu amagul huit ans su ma jàngee xam-xam yi ba peeg ko dem ziyaare ji yonent bi sallallahu ca wa sallam ca madinatul munawara dem màkkatal karam loolu daal laa bëgg man bu ma màggee xale yëpp daal di noppi ne ko lan mooy Màkka ak Medina ndax tur wi dafa bees ci seen nopp ci gox bi ñu nekk ku nekk naan bu ma màggee lii laa bëgg a doon moom mu ne boroom xam-xam laa bëgg a doon dem aji màkka ziyaara yenent bi dem Màkka ak Medina bi ñu delloo am na ci kenn ku ñu wax Cheikh Abdul daal di ko nettali papaam ne ko papa Omar ibn Saïd ñun xale yi dañu dem ci sëñ bi pour mu ñaanal ñu ku nekk wax li nga bëgg waaye moom nee na dëkk bu tudd Màkka ak Medina la bëgg a dem ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko doom xale boobu de turam ñépp danañ ci jot xale boobu turam ñépp danañ ci jot ku nekk xale ci aas bi ngeen toll xam dëkk yooyu bàyyi Cheikh Abdul ne ko xale boobu turam ñépp danañ ci jot kon ku yitteem teel a la pour xam fi mu jëm ba muy nekk xale loolu la nettali boobu di teg di tegtale bu ñu demaan ci tool yi di bay bu ñuy ji dañuy ji ba tollu fenn seexu ne leen fii bu leen fi ji nañ ko romb dem ñu dëgër bopp ji ko bu ñu bu tawee foofa du sax diggante ba mu la waxoon di ji bu leen fa ji bu ñu tawee du sax am na ñum jota wax ne leen li tax ma ne bu leen fa ji du sax mais am na ñooñ dañoo dëgër bopp ji fa dañoo mujj kuy jiyati day woo seexu pour mu wax ko fan la war a ji ndax xam na fuy sax ak fu dul sax bi mu jàngee ci sëriñam nag ba mokkal alxuraan ci la dellu ci magam Alpha Ahmed Tall moo ko toppaatal alxuraanam jàngal ko tajwid durant muy nekk ci Alpha Ahmed moom it jommal na mag ji ndax mag ji daf ko daan yebal pour mu dem ci tool yi gardeel ko ko seexu day dem ci tool yi da tëdd nelaw picc yi ñëw lekk tool bi yépp wala lekk ca lu bari mag ji bis mu ñëw fekk ko muy nelaw ci tool yi mu fàq yëpp seexu yëg ko rek daw mu topp ko seexu di daw mu topp ko seexu di daw ba seex sës ci benn dex gu tudd dufu mu ñëw ne ko nag ma xam fan ngay jaar pour moom gannaaw seexu ñëw na ba ci dex gi day taxaw Alpha Ahmed topp ko yar bi ba sës ba bëgg ko sës seexu di dox ci kaw dox dex gi ba jéggi dex gi dox ci kaw ndox mi ba jéggi Alpha Ahmed lenn la muggoon mujjoon di négocier mooy nu muy naxee seexu ba mu del siwaat ndax fi seexu nekk moom mënu faa dem te ragal na seexu li mu def am na leneen lu ci mën a juddoo léegi lenn lan mujj di ko wax kaay dootuma la dóorati seexu doxaat ci kaw ndox mi ba yegg si ne ko yow la sa bët yi neexu rek mais picc yi dañoo naawoon rek mais lekkuñ dara ci tool bi mag ji ñëw xoolaa tool bi xool gis ne picc yi lekkuñ fa dara mu ne ko nañ dem ñibbi ci ay miracle yi mu def la bokk bi mu bi ko mag ji toppalee alxuraanam nag la jóge ko ci mag ji mu yebal ko ci boroom xam-xam bu mag ba di seex ba sa muur nga xam ne moo ko jàngal luxa Cheikh Abdallah lañ ko doon tuddee moo ko jàngal luxa jàngal ko fiq jàngal ko naxwu ak yeneeni xam-xam yi fànn sëriñam boobu jàngal ko xam-xam yooyu dencoon na benn magam bi ñoon wooyee Fatima Tall Cheikh Bassa muur mi mi ngi jàngee ci Hamad ibnu Ibrahim Hamad ibnu Ibrahim mi ngi jàngee ci boroom xam-xam ya nga xam ne ñoo nekk ca Chinqit ca Mauritanie foofu la Cheikh Hamad jànge ca waa ya gannaaw loolu seexu ci njàngam jaar na dëkk bu ñuy wax siin faalil ci boroom xam-xam bu mag ba di Ahmad Halima ci moom la Cheikh El Hadj jànge arut téere ibnu buuna ba muy ixmiraar ci moom la ko seexu jànge muxtasar bu seexul xaliil ci moom la ko seexu jànge ak yeneeni téere yu bari jàng na ko ci ay boromi xam-xam waaye fu ci nekk rekk diir bu gàtt la fay def maanaam daf doon setalee wilaayaam njàngam daam kog mooy jàngee ci yow waaye nga koy sagal di jàngee ci moom Mm-hmm. dal na Seex al Xaaj Malik mi jàng ixmiraar ci ndar góor gi ko ko doon jàngal maa ngi fàtte turam waa ma yoro baal waa góor gi yoro Cheikh Al Hadj Mal day def ngoon gu nekk rek mu ja mu gàddu téereem ñoo jàng si góor gi dem ba yëg ne ki muy jàngal téere bi moo ko ko gën a dégg waaye li mu ko koy gën a dégg yëpp taxul mu arrêté njàng ma de ngoon gu nekk mu bokk téereem ñoo jàng si mu jigi góor gi yorobaal net nemmeeku ne Cheikh Al Hadj Malick mi muy jàngal ixmiraara ko ko gën a dégg bis mu wan ko ginnaaw dem mu wax ndongo mi ne leen kii di fi ñëw di jàng di jàng si wallaahi téere bi ma koy jàngal moo ma ko gën a dégg waaye wor ma dong nga tax mu ñëw di ma déglu ma koy jàngal téere bi wor ma jooju nag moo jox insha allah dana doon ku ñuy wormaal ñoom foofu lañu mag ñi rawee ñun koo koo raw wan ko jàngal toppal ci ginnaaw imaam rek mu jàng faatixa ne wala laali doo toppati ci ginnaawam waaye gis nga teggin boobu Cheikh Al Hadj Malick wan góor gi Thierno Yorobal cheikhu yi tamit ñi mu jaar ci ñoom di jàng yëpp dalay lay wan ne boobu maftuuxaale yi la te maftuuxaale yi benn matière dootu la réerati ginnaaw bi mu jàngee ci tënk nag ba peeg xam-xamu sharia la yëg ne mbir mi nekkul ci téere yi rek mais xaqiqa ci la ci la jóg nag di wër wàllu yàlla ba dajee góor gi Abdul Karim Diallo nekkoon muqaddamu Cheikhana Ahmed Tidiane moo jox wérdu Cheikh Al Hadj Omarul Fouti Cheikh Al Hadj Omarul Fouti taxoon naa ak moom ab diir boobu jógee na ca Cheikh Mawlud Fall al Yaqubi ba muy wëññeeku ci jógee ko ci la dajee góor gi Cheikh Abdul Karim. Cheikh Abdul Karim Diallo moo ko jox wérdo tiijaan seen diggante ñoom ñaar lu yàgg na lu gudd la leeral na loolu ci rimaax diggante ma Cheikh Abdul Karim ni mu ko joxee wérdo waaye nee na wérdo rek la ko jox laazim ak wadifa ak xadara amul beneen wérdo ci tarixa bi bu mu jëlee ci moom bu dul xisbu sayfi foofu rek la yem moom góor gi Abdul Karim amul beneen lawraat wala benn tur yàlla bu mu jëlee ci góor gi Abdul Karim Diallo waaye daal moo ko jox tariqa Cheikhna Ahmad Tidiane laadim wadifa hadratul juma ak xisbu sayfi nee na xisbul mughni sax joxuma ko xisbu sayfi rek la yem ak man góor gi nag bëggaloon ko boppam ndax gis na ne cheikhu borom cër la ba bokkoon na ci ay mébétam cheikhu buy aji màkka ñoom ñaar ñu ànd xisa yu gudd jox na seen diggante waaye yàlla mujj koo dogal ndax góor gi dafa mujj feebar laataa seexu di dem màkk génn àdduna am na ñu ne génn àddunaam ci yoonu màkk bi la ko yëgee boobu départ na jëm màkk léegi nag bi mu jàngee ba am li mu am ci xam-xam am lu mu tàmbalee naan ci wàllu yàlla la yëg ne am na loo xam ne mënu koo amee fii ci senegal waaye ma ngi ko mën a amee ci xaramayni sharifa fay lam doon ñaan lu ba mu nekkee ca daara ja mooy dem màkka ziyaara yonent bi léegi nag amatul benn yitte bu dul dem màkka ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbalee dajale nag yóbbal pour mën a dem aji màkk ci la génn nag xalwaar ci ay yitteem dem maasina ngir nag mën a waaj ngir dem aji màkka ca maasina googu noonu jot na fa xibaaru sëriñam Cheikh Abdul Karim Cheikh Abdul Karim bind ko lettre ne ko Cheikhu Umar maa ngi lay yëgal ne bi nga tàqalikoog man ak léegi bis bu nekk sama cofeel ci yow day yokk loolu la ko wax ca lettre ba feddali ko nag yéeneem jama am bu ko yàlla dimbalee bëgg na aj gi ñu ànd ci waaye li ma wax léegi ci ginnaaw yàlla mujj ko dogal bi muy départ nag di aji gannaaw bi mu dajalee yóbbal yoon wi lu bari xew na ci ci ay karaama damay tënk rek nag ci yoonu ajam googu li ngeen di dégg gunjur ci yoonu ajam gi la amee ci la fa jaar bi muy dem màkk ci la jaar gunjur gunjur ñoom sëñ Sàmba Ture xam nañ ko ñoom jaamukatu yàlla yi comme ni mu ñëwee fii ci tubaab jalaaw yàggoon fi noonu tamit lay demee gunjur ak yeneen yeneeni goxu mag ñi mu fay dem ndax gunjur bërëb bu yéeme la li ma la wax léegi ci ginnaaw ne seexu bokk na ci miracle am yàlla daf ko won bërëbu ijaaba yépp mu dem gu jur ci bërëb yooyu la bokk néew na boroom xam-xam walla boroom wilaaya bu nekk Sénégal lu dul ne yàlla womat na la nga dem ba gunjur ndax mag ñi xam nañu ne am na yenn tur foofu rekk nga ko mën a liggéeyee gis ci dara fu dul gunjur du yëngatu mhm. mag ñi ko xam xam nañ ko man sama baay sama yaay nettali na ma ne bërëb bu mu fonkoon la gunjur mhm. Mhm. <laughs> ah yàlla nañ fa dem ñun ñëpp <laughs> yàlla nañ fa dem ñun ñëpp ku man daal dem fa mbir nga fa gunjur diiraa muy nekk gunjur am na mbir yu fa xew ndax dafa am ko mu sàkku pour mu indil ko ndox mu mu jàppee koo ko dem jël ndox mi def ko ci satala am sabar gum romb di seetaan ba ndox ma tuuru mu yéex a ñëw nag seexu gisu ko te seexu mi ngi war a jàpp pour julli Cheikh El Hadj Omar laajte ne déew de xaw ma lan moo tax ba léegi ñëwul ndege dem moom tëgg mum romb nekk fay seetaan la nekk di seetaan ba ndox ma tuuru fa seexu yaramam bu tàng jur na musiba gu rëy xew na ca ñi tëgg sabar ba mbooloo musiba gu rëy daal xew na ci ñoom gunjur ginnaaw loola la ñu jëlee aada kenn du fa sabar hmm, kenn du fa sabar ndax la xewoon noonu ba fa seexu jaaree yónnee ndoxum njàpp waaja xam naa ab caameen la mu sàggan ba ndox ma tuur am balaa bu wàcc ca ñu organiser woon sabar ba ci yoonam bi ci gunjur ak ci yoonu màkkaam bi yoonu màkka wi yoonu màkka bu riis la def ci même yoon bi la ñëwee fii ci ngàpparu ngapparu gi seexu jaar na fi ni mu jaaree tubaab jalaaw la jaaree ngapparu tubaab jalaaw nag ak jaaram fi sama gëstul àggul ci ndax yoonu màkkaam bi te mën na nekk xëy na histoire tubaab jalaaw Thierno Mountaga bi muy bind xëy na mën naa am jotul ak dikkam fii tax na boolewu ko ci mais ku ñëw fii ngapparu mën naa am mooy même sa yoon wi tubaab jalaaw waaye ngapparu moom it def na fa miracle am na dex gu fa nekkoon bi muy bëgg a jàpp fi mu toog ci dex gi ñëw tànq fa mu toog di tànk ci dex gi la suñu boroom ballal ndox mu neex Cheikh Al Hadj mujj bàyyi ndoxum dex mi mu waroon a jàppee fa mu toogoon ñu ballal fa ndox ndox moomu la jàppee ndox ma diir bu yàgg nit ñi dañuy ñëw di barkeelu ca ndox moomu comme ni ñuy barkeeloo ci ndox muy feeñ fii ci géej gi ci tubaab jalaaw du yéen a ngi fi ndox maa ngi fi de ah ah ndox mi du mu ngi fi mais léeg-léeg la wala tout la ah léeg-léeg waaw fii tubaab jalaaw laajee ñoom sëñ Sàmba ñoom xam nañ te li yéeme barab boobu nga xam ne fa la seexu doon toog di bëgg a jàpp ci ndoxum géej gi am xorom ndox ma ballee woon fa mu toogoon ndox mu neex la ndoxum géej gi lu mu bari bari du laalanteeg ndox mu neex mi ba yàq ko gannaaw loolu ci même yoon wi ci ajam gi la jaaree saint wi Ndar Seexu jaar na fa ndarit Cerno Saidu Nuuru turandoo Cerno Saidu mi mooy nettali ne bi fa Seex Alxaaji Omar jaaree bi muy aji am na benn xaritam bu ñu doon tuddee Malick Makumba bu mu xamante loon ca Fuuta bi seexu yegg seen ndar moom Malick Makumba la njëkk a gis ne ko Malick looy def fii mu ne ko seexu xanaa jamono ju naqari rek ndax bu ñu nekkee Fuuta ba jamono naqari dañuy ñëw fii ndar ngir suturlu loolu dong ma fi indi mu ne ko Malick loo yor ci sa loxo bi nii mu ne ko dalaa'ilul xayraati fekk na boobu Malick mi ngi yor dalaa'ilul xayraati mu ne ko moo ne téere bii nga yor de am na ci baat boo xam ne baat yoo xam ne soo ko baamtoo dootoo ñàkkati bay soxlaa ñëw ndar Malick ma kumba ne ko yan baat la seexu ne ko jox ma téere bi mu jox ko téere bi mu ubbi ubbi ubbi ba yam ci ay baat mu ne ko baat yi guddi gi yëpp dee ko baamtu bul noppalu nag bul nelaw guddi gi yëpp del baamtu baat yi amul lim de ko baamtu rek ma Makumba bi muy daaneel ca fajar ga la jot leetaru gouverneur ñu jox ko poste ndar ci barke ñaanu maam Cheikh Al Hadj Omarul Fouti ci ndar googu noonu le la dajee góor gi miqdaat sekk moom it ñaanu seexu Umar jural na ko barke bu rëy ndax góor gi Miqdaad bokk na ci lim ko ñaan woon mooy yàlla may ko ay nja yàlla may ko njaboot waaye tamit mu dem aji màkka mag ñi démb aj màkka tey la yomb mais mag aj màkka teraanga ju rëy la woon ci ñoon bu mu daan ñaan yàlla góor gi Miqdaad Seck bi mu yëgee ne Cheikh Omar borom cër la bokk na ci lim ko ñaanloo mooy mu ñaanal ko yàlla yàlla wërsëgal ko mu aj màkka Cheikh Omar ne ko insha allah da aj mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am ay doom yu góor Cheikhu ne ko insha allah danga am ay doom yu góor yu ñu ràññee te ñoom ñépp danañ aji màkk waaye condition bi lenn lay doon mooy yàlla dénk na la wërsëg sa kër dootoo ko tëjalati miskin dangay ngay ubbi kër gi guddeeg bëccëg amul tëj kër bu miskin ñëwee nga jox ko ñam teral ko loolu mooy condition bi soo ko defee danga aj màkk di nga am ay doom yu góor te ñëpp danay aji màkk góor gi du sekk ne ko nangu naa loolu dala góor gi maq daat sekk ne ko nangu naa loolu mooy waajuru góor gi dul sekk bam nangoo loolu ci la ko yàlla wërsëgal aji na màkk am nay doom doom yëpp aj nañ màkk doom yu góor yi mu ko waxoon dut sekk maq daat ci la bokk ay nay ni sekk ci la bokk abdullah sekk ak suleymaan sekk ñeent doom yi góor yooyu am na ko gannaaw ñaanu Cheikh Omar te ñoom ñëpp aji nañu màgg miracle yaa ngi noonu ci wàllu ñaan bi waa Ndar yégée ne Cheikhu mi ngi ci seen biir te borom cër la dañu def délégation ñëw seet ko pour mu conseiller leen nan lañuy def ba Ndar jëm kanam rawatina ci wàllu diine ji seexu ne leen li ma leen di njëkk a sant lenn la mooy dëkk bu toll nii faw mu am juma il faut ngeen tabax fi juma ñu ne ko nangu nañ pour tabax ko mu ne ko waaye dama leen di laaj dëkk bi fan la fi ay boromi xam-xam gën a bari ak fan la fi ay jaahil gën a bari ñu ne ko fi xam boroom xam-xam yi ëpp mooy sindoon yi jaahil yi fi ñu ëpp mooy loodo mu ne tabax leen jumaa ji loodo ñu ne ko ah, xanaa jumaa ji kay dañ ko war a tabax fi borom xam-xam yi gën a bari mu leen tabax leen ko fi jaahil yi gën a bari ndax su ngeen ko tabaxee fi boroom xam-xam yi gën a bari jaahil yi duñ fa dem julli ji waaye boroom xam-xam yi xam nañ njëriñu jumaa lu jumaa ji sori sori danañ ñëw julli si fi ñu daal di nangu pour tabax jumaa ji loodo mun leen nag ngeen ut borom xam-xam nag ca waa Sindoon yi loodo moom la maam Khalifa Niass di cité ba muy tàgg Cheikh Alxaaj Malik ca xasidaam ba ne yuraa la day hidawi yu dikkiri yuuqidu man xat naama fii loodoo aw sindooni lil baay ji mu ne riirum zikkar mi ngay dégg ci alaaji Malik bu fajar jotee mu ne buñ ne bismillah bañ ne aoudu billahi min asheytaani rajim mu ne riirum zikkar ba kuy nelaw ca loodoo wala sindooni wala goxu mbaaj mu ne riiru zikkaru taalibi alaaji Malik yee mu ne maam Xalifa Ñas nee na yee ñu ne léegi nag dañoo bëgg nga wax ñu jumaa ji fan lay nekk fan lañ koy tabax Cheikh El Hadj Omar dem ba ci bërëb boo xam ne dafa sës ci dex gi am ndox mu leen fii ngeen koy tabax ñu ne ko mais fii bërëb la boo xam ne buñ ko fi tabaxee géej gi léeg-léeg dafay randu di ñëw ci bërëb bi mu ne leen insha allah géej gi dootul randooti fi mu yem lay yem tabax leen fi jumaa ji hmm? waaw mu ne fa la sës jumaa ji nag foofu mu nekk seexu laataa muy wax ne nañ ko fa rëdd jumaa ji ndox mi da daan ñëw bay nangu si bërëb boobu waaye mu na leen tabax leen fi jumaa mag ñëpp ne ko ah nangu nañ sa ndigal waaye dafa am lu ci xew mooy bërëb bii nag day am période boo xam ne géej gi day randu ba ñëw nangu si ko seexu ne leen géej gi du randooti ba léegi géej gi fam yam fa la yam de jumaa jàng fa géej gi randuwut léegi mu defaral leen jumaa ji wax leen penk bi fi mu nekk te wax na leen na leen jumaa ji fi mu tollool wan nañ ma fi mu janool maa ngi fay dégg ay ŋaxalu fas xaw ma nag lu muy doon mais ay fas daal maa ngi dégg ñu fay ŋaxal ndekete boobu mooy armée bi fi ñuy nekk ak seen fas yi la seexu déggoon ŋaxalu fas yi bërëb ba mu leen waxoon ne moo tollook jumaa ji may dégg ŋaxal bërëb ba moo nekk bërëbu armée ba mooy camp ba foofu la seexu wax ne maa ngi fa doon dégg ay ngaxalu fas biñ tabaxee jumaa ji ba noppi nag am benn naar bu jógee Mauritanie ñëw critique leen ne jumaa ji jubluwul penku boobu seexu génnagul ndar de ne leen seen jumaa ji ngeen tabax ndax diir bi mu leen ko waxee seexu laataa muy génn ndar fekk nañu ñu tabax jumaa ji ñu ne leen jumaa ji mu ne leen jumaa ji jubluwul penku ñu dem ci seexu ne quoi ah, am na borom xam-xam bu bàyyeekoo Mauritanie de bi mu ñëwee xool na jumaa ji mais nee na jumaa ji jubluwul penku cheikh alxaaji omar ne wool leen ma ko ñu wool ko mu ñëw cheikhu ñëw ba taxaw ci mihraabu jumaa ji rek wéq tànkam ne ko xoolal naar bi xool la yuuxu ñu ne ko lan la mu ne maa ngi gis kaaba gi nii cheikhu ne ko man bu may rëdd jumaa sama bët ci kaaba gi lay tegu moo tax du ma mooy xibla dañuy tënk ndax waxtaane Cheikh Oumar géej la goo xam ne laa saaxila géej la gu amul tefes yoonu ndaram gi noon mu jaaree fu bari ci senegal ba mu génnee Afrique fu bari la jaar ci même ajam gi la dem keer li ma wax léegi ci ubbite gi la fa xew ci aj ga la ko yàlla tàggatalee laataa muy dem aji dafa dugg xal wa ñu jox ko benn tur ci biir xalwa bi nekk kooku moo lay jàppale ci aj gi Cheikh Umar jàpp turu kooku kooku bi ngi dajeeg moom Misra keer la dajeeg moom te kooku laata Cheikhu di yegsi ci moom moom it yàlla wan na ko dikku seexu waaye gàttandoowul Cheikhu lu dul invité ay boromi xam-xam la gàttandoo Cheikhu xam nga koo xam ne mosoo koo gis mu ñëw yow it laa gis seexu turuwaa ji ci xalwa la ko jotee mu dugg si ci dugg dëkk bi kooku gàttandu seexu mi ngi ko gàttandoo ay boromi xam-xam yu mu invité defar benn añ ñépp toog lekk naan pare ku nekk di poser question seexu di tontu foofa la wedam loo borom xam-xam yooyu bañ laajoon ko yow sa bàyyi xanaa amul Sénégal mun leen sama bàyyi bari na ku mel ni moom Sénégal mais sama yaay laa fa gisul ku mel ni moom ci tënk ci ajam googu la yekkee yeggee màkka ci yoon wi ci dëkk yi mu jaar la déggee turu Seex Muhammadul Xaali ne mi ngi màkka def mu jaawara mu dugg mu ñaan yàlla sunu borom ne yàlla na fekk Seex Muhammadul Xaali màkkatal karam yees lu ci moom ndax li mu bëgg ci wàllu yàlla mën na ko cee aidé moom Seex Muhammadul Xaali yàlla nangu ñaanam ba mi ngi dajeeg Seex Muhammadul Xaali màkkatal karam mu ajandoog Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh Mouhamadul Ghali ak Cheikh Omar maqaamu Ibrahim la ñu gisante maqaamu Ibrahim fa la ñu gisante waaye dafa gis seexu rek yàlla roof cofeelu seexu ci am na benn nusqa jawaahirul maani bu mu yoroon mu yëkkati ko jox ko Cheikh Alhaji Omar seexu di yër jawaahir cofeelam ci seexu Tijaan di gën a yokk ci la ko Cheikh Mouhamadul Ghali wax nag ne ko moom dafa ñëw màkk léegi ngir fa yéene dëkk fi ba faatu dootu fi jógeti cheikhu moom it niseroon même niser bi dëkkandoo ak cheikh Mouhamadul Ghali ci la ëlbatikuwaat yeesluwaat cheikh Mouhamadul Ghali doonaat taalibeem sànni mbooleem lu mu xamoon ci xam-xamu zaahir ak baatin nekk ci diggante cheikh Mouhamadul Ghali mel ne taalibe boobu nga xam ne nii dafay soog di fer ijji ci kanamu sëriñam nangootu la xam dara te boobu jeexal na téere yi bi ajee ba aj gi jeex moog cheikh Mouhamadul Ghali ñoo ànd dem Madinatul a wara ak cheikh Umar cheikh Umar ak cheikh Mouhamad al Ghali cheikh Mouhamad al Ghali di ko tarbiya cheikh Umar def na neuf mois yoo xam ne moo xam avant muy dem Jérusalem la ci nettali bi wala après Jérusalem chaque jour seexu day jël ceenu or teg ko ci jëbi ba ci wewu tànkam neuf mois chaque jour mu lem ko jox ko hëddee cheikh ma laaj fu mu ko jëlee de seexu donnu sekkare xaaruuna la bokkoon kenn du ko seexu ci wëli yu donn sekkare na la bokkoon waaw jihaad ji chaque jour danañ taal téeméeri mbana yu teg juróomi téeméeri bool bool bu nekk suur fukk juróomi ponkal seexu mooy financé jihaad yëpp jihaad ji lañ koy déggee amul kenn ku ko doon financé lël bi ko toppoon armée bi yëpp seexu moo leen doon dundal chaque jour juróomi téeméeri bool yi danañ ko teg benn booli bu ne suur na juróomi ponkal te seexu moo koy financé ci poosam moo tax neuf mois def na trois ans ak Cheikh Mouhamadul Ghali waaye neuf mois yëpp chaque jour mu natt ceenu or ci jébbi ba ci wewu tànk jox ko bis bisu benn benn weeru koor teru na ndax weeru muharram la yegg euh, weeru weeru nu mu tuddati weeru euh, weeru aj zil zil zil xijja la yegg màkka muharram la ànd ak Cheikh Mouhamadul Xaali de Madinatul Munawara muharram ba weeru koor weeru koor benn bis la toog rek nekk ci diggante rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak minbaram ba moog Cheikh Mouhamadul Xaali mu ne ko maa ngi seede bëgg nga nangul ma ne gis naa la Cheikh Mouhamadul Xaali ne ko nangul naa la ne gis naa la mu ne ko lii ma wax nii mos naa ko wax xanaa Cheikhana Ahmada Tijaani Cheikhana Ahmad Tidiane ne ma Mouhamadul Xaali nangul naa la ko mu ne yàlla won ma ko ci benn mbir mu yéeme ma gis Cheikhu Tidiane mi ngi yor ci loxoom lu mel ne benn mbubum or mu ne ma Mouhamadul Xaali mbubum or mii ma yor nii mbubum leer mbubum leer ne ma mbub mii ku ko gis yàlla xaraamal na sa yaram safara nee na ma kontaan lool mu jël mbubum leer ma solal ma ko pour mu bégalee ko ko ne ko li ma wax ne naa la nangul ne gis naa la ma nangul la ko Cheikhu Tidiane mbub moomu mu yoroon ci leer ne ku ko gis yàlla xaramal na yaramu safara mbub mi ma gis ko mbub moomu noonu le solal na ma ko ci baatin kon yow nangul naa la ne gis nga mbub moomu noonu le yonent bi feeñu Cheikh Mouhamad Cheikhna Ahmad Tidiane feeñu Cheikh Mouhamad al Ghali ne ko jox naa la ndigal lépp luy lawraat ci tariixa bi ak i sekkare nga joxal ma ko Cheikh Fuuti mii waaye nag dama laa sant rek nga joxal ma ko ko mais man maa ko ko jox jaare ko ci yow Cheikhoo ngi nettali loolu ci rima Cheikh Mouhamadoul Ghali gannaaw bi mu gisee ak moom ba dem Madinatu Munawara weeru koor googu nga xam ne mooy weeru kooram gu njëkk mën Madinatu Munawara ci la yàlla dogal soxnaam si mu àndaloon ndax bi muy aji dafa àndoon ak soxnaam ak rakkam Cerno yi moo ñoom ñoo ànd ci aj googu la rakkam googu des bi ñu jugee ko ci aj gi ci yoon bi la faatu Cerno Ali moom rek wali yu la woon ponkal ndax bi mu faatoo bañ war ko jullee Cheikh Oumar dafa am kum ne ko jullee ko kooku bëgg ko jullee néew bi moo ne ko Cheikhu ñun mënuñoo tukki nekk ci tumuranke ba noppi ma faatu ngay sant keneen mu jiite ma Cheikh Oumar daal di wax ki mu santoon mu jiite ko ne ko dellul ginnaaw te mi ngi wax ak moom déggu ko de maanaam ki mu ne woon mu jiite ko dégg ko mais Cheikh ngi dégg rakk ji di wax ak moom mooy Gerno Ali ci la ko wax ne ko jiit ci la ko wax ne ko bàyyil ma mujj ko jiite ndekete boobu rakk ji moo ko tawat pourquoi muy santaane keneen mu jiite ko te néew la kat walillaahi fii xalqihi suun <laughs> ah suun Cerno Ali loolu mu wax Cheikh Oumar dal na maam rawaxaan maam rawaxaan ko bi sëriñ bi mu génnee àdduna sëriñ Babacar moo dem taxawu ko ca paal jullee ko ñu denc ko bi mu wëññeekoo bay tollu ngaay ci la sëriñ Babacar si radiyallahu anhu ne cëy yàlla yàlla man ñu ne ko Babacar si lu xew mu ne rawande moo may jéggalu ci tànk yi ma séqi ak coono bi ma toggoon ngir ñëw jullee si ko mu ne fi mu toll nii mi ngi may jéggalu tànk yooyu <laughs> Mm. ah déet moom ku ca bokkut bokkoo ca rek soo gisee wahabi yi du ma jubóog ñoom loo wax ñu ne la non loolu mënul nekk ah déggal xuraafaat yooyu noonu la bàyyi wahabi wala maamam boo nekk woon da nga toog fii Sénégal jamono di wax ku nekk màkk mu ne la noo xaraam loolu ku ko wax sax génn ci lislaam ndax loolu nu mën a nekkee ay jamono ko waxoon ni da toog fii di gis ku nekk Màkka mu ne la loolu mënul ne te fii laay toog taal sama tablette bi léegi woo sama xarit bu nekk maaka ñu janoo di waxtaan yàlla bu manee lu mel noonu ci benn technologie kon lu yàlla tële démb pour defal ko lii Cerno Ali moom la àndaloon mais àndoon naag soxnaam weeru koor la soxna sa am doom sa mën Madinatu Munawara muy soxna Fatima Taal da ngeen dégg lu bari ci suñu mbokk yi xam na ko bokk na bari na ay mbokkam yi ñuy tuddee Madina Taal ah? madina lañ lay tuddee madina googu mi ngi jugee ci soxna Fatima al madani lañ ko doon dàkkantale ndax a war a la ganee àdduna mu ma tuddee ko soxna Fatima mii doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la seexu def bi soxna Fatima ganee àdduna daf ko jël dem ba ci rawdu yonent bi mu teg ko fa boobu loolu aadala la woon madina ku am doom da koy jël yóbbu ko ci rawdu bi ngir barkeelu daal di ko jël yóbbu waaye moom daf ko fa yóbbu teg ko fa sept jour xam nga lan la wax dane bu fekkee doom ji nar na doon kuy taxawu diine ji ak tariqa Seexu Tijaan bi bu ma delsiwaatee naa ko fekk muy dund waaye su fekkee narta doon kuy taxawu diina ji ak tariqa bi su ma dellusee naa ko fekk mu faatu sept jours après la ñëw fekk soxna Fatima mi ngi seex baaraam bi di ko nàmp meew di ci génn ci la ko ngénte tuddee ko soxna Fatima soxna Fatima moomu moom dong la Seex al Xaaji Omar mos a ci jigéen muqaddam la woon boroom cër la woon cëram bokk na ci guddi gu nekk daan jàng jàng mille jawharatul kamal soxna Fatima Taal mille jawhara nee na daal sama mille jawhara benn yoon laa sikk sàkk ndax mat naa mag matul mooy keroog biñ ma annoncé ne sama baay réer na ca Bàjjangara mu ne bi ma jotee xibaar boobu daal keroog tuuse na ma ba xaw ma ndax sama mille jawhara yi mat na wala matul waaye sax guddi mu jàng junniy jawharatul kamal soxna Fatima Tall nekkoon muqaddam ci tarixa bi di joxe ndigal ma nga faatoo ca xalwaar fa lañ ko denc diina la gane àdduna mbokk yi buñ ko toppee duñu fi jóg <laughs> waaye pour wan la ne Hmm? kenn du moom de xam nga ku Maodo xool ba ne mooy sama sëriñ Thierno hmm? Seydou wax na ko loolu léegi ne tarixa bi ku ne mën na wax ñu respecté la ko waaye sama sëriñ Cheikh mar ci suñu tarixa bi waxam mu'tamadun wa mu'tabar ñun daal nopp bii ubbi nañ ko jox ko seexu bu sëriñ si werantee ci tariixa bi lu seexu wax doy nañu point fi may daanalee mooy dëggal li mu wax xam nga tubaab bi ba léegi dañ naan dafa réer xaw ma dispari lan dans le da bànjagara dafa lan réer kañ lay feeñ moo tax boo gëstoo histoire mag ñi rek fonk leen waaye danga koy gën a dëgërale waat sa gëm yàlla xam ne yàlla maye na lu ne dalee ko fii ci senegal ku gëm na gëm fa <laughs> waaye yàlla maye na lu ne dalee ko fii ci Sénégal ci mag ñooñu Cheikh Oumar ilaa yawmina haza am na ñu muy feeñu kii kii firnde la ci xam nga kii sufiyanke la boo xam ne bu yéewe la <laughs> sëñ Samba Touré mi xam nga wax na leen ju na leen ko nee daan na nekk fii tubaab jalaaw xëy na ñu bari fàtte nañ ko mais am na ñu mën a takk xëy na daan na nekk fii mel ne ku tàqalikoog sagoom solo ay sagaram yor kurusam di baagante ci diggante bii diggante bii Cheikh Oumar feeñu na ko fii moom mii toog hmm? Abdou Karim ma la di nee na Abdou Karim ma la di woy baayam di Moustapha Gaye di ku ñu ràññee ci xadara bii borom xam-xam di imaam nee na seexu feeñu na ko nee na feeñu na Moustapha moo nu ko wax ak naka la ko feeñoo waaw man ba may nekk ci daara ja la suñ sëñ daara waaw nga ne sa bàyyi waaw nee na loolu ñun ñii fekk nañ ko mu wax ay firnde te firnde yooyu ñu ngi koy gis mu dékki saa dafa gékki dékki ne na xale yi génn. ñun génn. mu ne sama papa ndax xam nga ma. mu ne sama papa ndax xam nga ma. sama papa ne ko ah, xaw ma la de. mu ne ko ana Cheikh Oumar xaqan. mu man maay Cheikh Oumar dëgg. waaw. ku koy weddi rek nag dalaa ko ñaanal yàlla gëm ko rek ba mu feeñu la ku mu feeñu sa affaire baax de <laughs> ba may ne daara ja suñu sëriñ sañ Basiiru yàlla ñu ko nettali. daan na wax turu góor gi mi ngi dëkkoon foofu defee naa kaas naag benn fajar la ko seexu feeñu mais ni mu ko dikkee daf ko dikkee comme genn góoru tukkuloo rek yor yatam gàddu mbuusam noonu mais ci fajar gi li yéeme mu ñëw ne ko dama bëgg nga tàngalal ma ataaya gannaaw góor gi yàlla baaxee na ko kim feeñu du ko gàntal mu dem lijjanti lijjanti ba fëgg borom boutique bi nga xam ne nii dafa tëj ci fajar gi jënd ataaya ñëw tàngalal ko mu naan sant ko gërëm ko bi muy ñibbi ba mu dem ba tolloo ci bopp koñ bi ci la ne ko man la Seexu Umar Fuuti mu ne ko dimbali ma xaaral dimbali ma ñaan naa la ko rek pour daw dem seet lan la yenu hëddiyee pour indil ko ko bi muy wan ginnaaw ak bi muy gestuwaat gisatu ko mu ne mër borom photo bi al amin xam xanaa du waxantu nettale na ma ma dégg ci sama nopp bi mu ne Cheikh Oumar feeñu na ko ci mbir mu yéeme fi mu jaar ba feeñu ko ca Tiwaawoon gële Cheikh Oumar feeñu na ko te mag ñi xam nañ ne am na jëfandiku yoo xam ne nii am na tur yoo xam ne ku ko laal dana wax ak yow hmm, ndax turam bu la bu la feeñuwul nii nga gis ko dana la feeñu ci nelaw wax ak yow mbiri nag ku ci ñamu danga ci ñamu tuus rek waaye am na loo xam ne duggal ak mag ci ruq rek mu jox la benn dog nga liggéey ko tëdd guddi boo yeewu di gëm mag ñi man maa la ko wax hmm. ku xamul nag xamut la mu saf ko ko mos rek ka <laughs> la mu fas la mu saf ka ko mos rek ka ko xam waaye ku ku ku ku yàgg ci géewu mag ñi ba ñu ñamal la seen yooyu ñuy ñamalaatee moo ku waxati dangay ngay da ngay ree rek noppi xam ne daa mosagut rek dafa mosagut la saalum saalum ba waxoon góorug saalum saalum ba daanta fu mu toll naan xab doo bon xab du juuf fa bon man maa ko fa bon baaxut kër baaxut xàll la gars yi Abdou Diouf yi fexe fexe ba gisee góor gi rek boqal ko lu diis a diis góor gi bu ñëwee toog ci penc mi ñëpp wax di commentaire mu ne tekk noppi rek mujj gi gaa yi nag waa yow góor gi foo tollaa nag naan xam du fa bon mm-hmm. mu ne fa fa maa lexal di hmm, waaye mag ñi kuñ lexal ah. te loolu am na benn iti étudiant université gii la ko seexu feeñoo waaw université la ko seex boobu nee na mi ngi ci compo yu métti métti mbir yi tax mu def ay tawasulaatam Seexu feeñu ko am lu mu wax waaw bu fi yàlla bàyyee ibliis ba léegi reyu ko nga naan léegi yàlla moom tëli na bàyyi fi Cheikh Omar ba léegi ci miracle ana xadir borom xam-xam yi bind nañ téere di saxal ak dundam di saxal ne xadir ba léegi mi ngi dund yàlla mën na fee bàyyi xadir tële bàyyi fi seexu ba léegi seexu waliyu la boo xam ne la góor gi Yuusufa Jóob defe naa waxoon Cheikh Alxaaj Malik ne insun malakiyun ku yor jëmmi nit la nii mais malaaka buy dox la ah non kàttan gim yoroon ci jihaat ak lam def noonu nit kese mënu ko def yow ku ne la yaa ngi jihaat xoolal jihaat amul ket amul ket koo xam ne tubaab yi jëmmërloo nga ak ñoom jëmmërloo ket doy bim ñibbisee màkka noonu dem na Saalum benn dëkk bokk na ci li nga xam ne moom la leen waxoon dañ ko ñaan pour bëgg a ànd ak moom jihaad mën leen nag amagu leen ci ndigal faaw ngeen xaar ba ndigal li jot yëkkate ay xeer jox leen ko ne leen xeer yi fekk yéen a ngi koy yëkkati mu mën a yëkkati ko amagu leen jihaad amagu leen ndigal mais bis bu ngeen xëyee jël xeer yi yëkkati ko xeer yi tëleen pour ngeen yëkkati ko xam ngeen ne am ngeen ndigal pour jihaad dañu yeewu rek yëkkati xeer yi xeer yi diis gan ñu xam ne am nañ ndigal daal di taal jihaad ji fekk ku mu doon am na turuum lay jox awul jihaad ni jaasi xeej ak yooyu kese waaye dafa am leneen lu lu lënk woon ci jihaad ndax dane cër yi yàlla defal na ma ko yàlla xamal na ma ismullaahil adam Cheikh Oumar yàlla may na ma xel yi li ñuy wax ma koy dégg boo toogee moom di xalaat li ngay xalaat ma mu koy dégg yàlla may na ma may gis yenent bi yàq dëtën laa mën yàlla may na ma ko waaye yàlla may na ma may tuubal ci benn jataay lu mën ñetti junniy nit loolu yàlla may na ma ko te firnde wi ci gis yenent bi gis ku yéeme mooy kilifa gam dajaloon mu jàng lu xëraati junni yoon gis yenent bi jël loxo bi bànd ko ne dootul nuyooti kenn ndax dafa am lu jafe dalaa leen xiraat nu mu toll mu jàng ko mille fois ba yenent bi feeñu ko mu ne nit ñeeg niñ taqeeg yenent beeg ni mu setee dootul nuyooti mbindee foo ko fekk ne day jël loxo bi takk nii dox ba yàlla dogal mu dajeeg seexu seexu gis ko laaj ko lu waral sa loxo bi nga koy takk mu ne ko daawuma ko wax ñu bari mais yow danaa la ko wax dama jàng dalaayilul xayraati junni yoon yenent bi feeñu ma ma nuyu ko yenent beeg ni mu seteeg nit ñi mu taqee ma ne dootu ma nuyooti ñu takk ñi ngir ko set kële Cheikhu ne ko loolu doo nga tax ngay tàkk sa loxo bi nii mu ne ko loolu képp la kat mu ne ko tekki loxo bi góor gi daal di niigal mu ne ko la tekkil loxo bi nuyuwaat yenent bi góor gi niig niigal seexu génne kurusam rëkk benn per ne ko gesul góor gi gestu gis rasulullaay njëkkantoo tekki loxo bi daal di nuyu yenent bi borom junni dalaay lu xeraat kii benn peram la ko wanewaat yenent bi góor gi ci la mujjee yéemu topp seexu ba mujj na doon mu xaddamam bu mag mbokk yi buñ ko toppee duñ fi jóg yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla ñu yàlla bëggloo wali yoom yépp ku nekk sa cër nag Cheikh Oumar cëru tariixa bi la waaye nag Cheikh Oumar Cheikh Oumarum Sénégal gépp la Cheikh Oumarum Afrique gépp la Cheikh Oumaru àdduna bépp la soo toppee gis naar yi li ñu bind ci seexu da ngay yéemu naar yi laa wax rawatina naaru gànnaar yi nga dem ba Maroc naar ya la ñu bind ci seexu da lay yéem ba saa dem Maroc da yëfaak benn naar bu tudd Ibrahima xaw ma ban réew la ma wax la bàyyeekoo ci àdduna bi waaye nee na moom cofeelu Cheikh Al Hadj Omar dafa nekk xale rek yàlla def ko ci moom te xamul kuy Cheikh mar yaakaar ñu wax mu ne ma ban réew nga jógee mu ne senegal mu jël ma lëng ma téye ma taf ma ci dënnam ne ma Sénégal Cheikhou Oumar fa la ne ma bëgg ko te boobu xale bu ndaw la di ma nettali yu bari ci Cheikh El Hadj Omarul Fouti ku yàlla def nag mu bokk ci sa li min ba nii jën si naa sunu xeet la nun africain nit ku ñëwul waaye nit ñu weex ña naw seexu loolu sunu cër la ñun at ñun Afrique gépp rawatina ñun senegal waaye nag ci biir seddu boobu biir tariixa Mawlaaya Seydi Ahmad Tijaani tariixa beneen bu seexu bokkoon waa tariixa bi dana ñee tariixa boobu waaye cëru tariixa bi la mhm. ki ngay xamee dooley tariixa seexu tijaan bi seexu moo la koy wan ndax dana li wali am yépp ba ber tariixa am naa ko ba mënoon a ber tariixa waaye lenn rek laa xam mooy su ma beroon tariixa du ma am salaatul faatih ma tax ma ne naa wëy rek di bóof ci tariixa Seexu Tijaan bi waa koskaas jërë ngeen jëf Souleymane Ndiaye jërëjëf waxoon naa nga bindal ma lis pour ma nuyu kilifa yi waaye tudd ñenn mu yóbbu ñëpp imaam xalifa maa ngi lay jéggalu sunu bàyyi siis Baye Abdoulaye Wade siis moom it ñu ngi koy jéggalu gëj na ñoo gisee imaam Xalifa nee daf ne ma jéggal na ma tuuti waaye nee na léegi jéggal na ma lépp moom suñu soppee la xam naa li tax muy wax ne baalu ma ndax dafa ma digoon ma ñëw ñu gisee waaw mm-hmm. te xam naa giseek moom njëriñu kese la ndax ci ci ci ci ñu yor bagaasu mag ñi la bokk allahuma laa adur waaw mu sàkk woon loolu waaye rek li may faral di wax ñëpp tërëdi rek <laughs> waaw tërëdi rek ba tax na ñu ngi koy ziyaara bu baax moom it di ko ñaanal yàlla dëgëral ko waaye Cerno Saidu bég nañu lool ci sa teewaay sa toogit ba waxtaan wi toll fii bég nañu si Souleymane léeg-léeg moo may poñe rek di ma daggaloo waxtaan yi fenn waaye am na fenn boo xam ne léegi ku ma daggaloo waxtaan damay bañ waaw royee ko Iran moom conférence am kenn du ko daggaloo <laughs> waxtaan di jox benn autorité waaw waaye nag lu mënta ñàkk faaw mu am te moo ko sañ ci nun ndax moom sunu lépp ku dem ba yëkkati deretam tuddee la ko deselatu la dara te tuddee nañu doom ñu bokk lu baree bari nag yàlla na ko yàlla dëgëral te wéral ko suñu mbokk mi toog di taalibi Maulana Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Mansour ñu ngi lay nuyu di ziyaara bu baax a baax lii rafet na lool léegi naa am lu ma metti lool ñuy tudd tariixa bi ne tariixa tijaan ak tariixa ñaseen <laughs> waaye lépp rek li muy wane nee mooy liggéeyu maam lay Niass ak njabootam nga rek maam Baye Niass gën cee ràññeeku ñu bokk lépp luñ mënta séddoo muy diine jeeg tariixa bi kon seen teewaay yéen it rafet na lool béggee nañ ko Cheikh Mansour yàlla yàlla fay la yiw te dëgëral la kim dendal noonu mooy sama entrepreneur moom taalibe pilis la mooy Cheikh Aliou Ndoye moo sol lu weex li noonu daara jooju ngeen di gis ma koy nab na bi fële ca Tiwaawoon Pël di ko tabax moom moo yor liggéey bi ci benn côté taalibe la acteur la ci acteuru xadara bi ci ay taxawaayam yu ràññeeku nekk kenn ci koskaas mais ci tool yi entrepreneur la nekk ku ñu naw nekk borom yitte di boroom taxawaay liggéey ba duma ci dem léeg di gëstu ji dara wala di xool dara moom daal léeg bu ma gisee appelam daal danaa tiit xam naa dana ne ma ah oustaz bu fekkee daraa ngi foofu <laughs> xam na ne li taalibe lay liggéeyal yorul budget yalwaan lay dundee moo tax su ma wooyee léeg-léeg damay yërëm rek ne ma ah bu fekkee dara am na fa de soxla nañu ciment wala fer ma ne ko am na yalwaan ju fi ruus c'est Ali xam naa am na yalwaan ju fi ruusaat tey euh, te yalwaan gi dama koy wan mbooloom yëpp ñu ñaanal ma ko lii ab sega sec bi koppar yu baree bari lañ ci bind pour ay tonu ciment yu baree bari jëm ca sànc ba ku ñu yàgg defal lu baree bari te dañu li ñu defal lu bare bari moo ko defati ne dugal na ko ci liggéey ba ngir ñu ñaanal woy juram bi génn àdduna bu yàggul muy alaaji la Fay mii toog yéen ñëpp ngeen ñaanalal ma ko yàlla du yoon wu njëkk kat nag mu def ko te bëggut ku ko wax nag ndax ba ma koy jox sax joxewuma ko ci ñi taxaw daf maa woo ci biir néegam génne sec bi jox ma na ma def naa ko ci liggéey ba waaye sama woy jur laa ko defal ngir ngeen ñaanal ko loolu mooy sadaqa mooy waladun saalix yad'u la ca lay dugg doom ju baax ju lay ñaanal kon alaaji Ismaïla fay jërëjëf Ismaïla Faye yàlla na la yàlla fay noonu laa ko te incha allah yàlla dana ko fay man amila saalihan fali wa man asaa faa fali wa man asa faa waaw ku def lu baax lii lii lay doon lii lal nga nga nga tëdd ca waaye boo defee lu bon faa lal bay tëdd sa kaw imaam ñu ngi lay ziyaara bu baax imaam ah Papa Aliou Ndion macha allah bi ma ko déggee mu ubbee ñaan ñaan gi dama tiit xam nga ku ferul ijji bu déggee ku fer ijji xam ne fer na ijji ku ko dégg xam ne aalim la allaama la macha allah allahuma la adur yal yàlla lafal ko cat yal yàlla dëgëral ko yàlla wéral ko naw naa wala ñeenaa lool ñi muy jiite xaw ma ñu mu nag waaye ñeenaa ñi muy jiite ñëpp <laughs> macha allah ah di nuyu jàmbaar ji toog soppe Cheikhana Ahmad jarul point sax jarul ngay wax sopp na diw ak diw Seex Sàmba Ture neel soppe Cheikhu Tidiane jarul sopp na sëñ Babacar jarul yooyu yëpp neel Sàmba Ture soppe Cheikhu Tidiane rek doy na cofeelam ci Seydina Cheikh daf ko wax dox ko ñun bu ñu daan dañuy jël avion dem moom oto lay jël oto senegal ba Maroc yëpp délégation dem ak dellusi nag xam nga foofu moom fa la yegg yam du luy oto lay taal dugal ci taalibe yi ñoom ñëpp ñu dem muy escale ka fanaan ci àll ka yendu ba ne Seexu Tijaan maa ngi nga xam ne trois heures avion moo koy daw nga dugg ci oto yi ay fan ngay def ci yoon waaye nag la mu saf ka ko mos rek ka ko xam bërëb booba ku fa ñam ay da jaay sa yére ngir bu jotee nga war fa dellu nga dellu fa <laughs> léeg ku xamut xamut rek mais gars xam xam nañu <laughs> non non non bàyyil <laughs>

jërëjëf mu nga ak <laughs> yaa xutb yaa xaws waaye ñi ko xam duñ ko wecceeg dara léeg ma dégg gone wahab yi gu ne man tijaan laa woon maa ngi xëy génn ci tarixa bi yàlla woon ma sunna ma ne ko xanaa sonn sonn de la yàlla wan sunna <laughs> mukk <laughs> sonn kan mooy xam Cheikh Tidiane di ko bàyyi Cheikh Tidiane cim du caaxaan Cheikh dëgg la du caaxaan xolal mag mu toll ni alaaji Malik dana ñaan dee ci caaxaan amaatana allahu diini nabi wa xubbi cheikhina imaami tayib moo Cheikh day caaxaan xoolal Cheikh Oumar mii ñuy wax ak yéemeem gi yépp doon taalibe ci Cheikhu Tidiane ko gën a lépp waxuma Cheikh mais xoolal Cheikh Mouhamadul Ghali ba muy ne Madina du sol daal la ngir tarbiyu ko benn yëre yëreem yépp lu mu am jox Cheikh Mouhamadul Ghali ndax lan taataan leeru Cheikhu tiijaan gi nekk ci moom Cheikh Mouhamadul Ghali foofu la faatoo ñu denc ko ca wetu Xadiija mu jaawar Cheikhou dana topp ca dana topp caaxaan moom maam Abdoulaye Niass Baye Niass maam Khalifa Niass euh, maam Xaadima euh, Jaxate Kala alladi ala llaahi tawakkala borom moo man lii bi ustaadin anuudu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawridi dem banaan talabtu fa jitu naasa min kulli mawtini wa jubtu fa jultul biida min kulli fëtfëdi ila an aqarru bayna baadin wa xaadirin bi an lam yajud dahrun bi hada wa yujadi wa hal yakmulu al awsaafu illa li wahidin yu kën naa abal abbas yi naj la muhammad yi xaadima jaxate kala raw ñëpp naan téere yi toog yëg ne téere yu doyut mu ne fan laay jëlee sëriñ bu ma yeggale ci yàlla qualité sëriñ yi muy wër muy dem di ko présenté gox par gox sëriñ bu mel nii bu mën a lii taalibeem sëriñ bu mel nii bu mën a lii taalibeem fu mu dem ñu ne ko sëriñ bu mel nii amu fi mu dem moom yàgg xaatifu rabbaani wax ak moom ne ko sëriñ bi ngay ut mi ngi ci biir suuf muy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi mu ne mujj gi ci laa jël sama buum buum takk sama baat ne Cheikh am doy nga ma sëriñ a jaxate kala kooku dana topp caaxaan moo ci yàlla yàlla dimbale ñi ko xamul ba xam ko Cheikh <laughs> ñam dool li gaangoog moo tax Babacar ne fa ëndal mu tëyemu in arafta kefeen yi man daal maa ngi maay sa dof bi boo xam ne dama laa bëgg ba dof ci yow rek doy na cool yi nag lu mu bari bari man Babacar xam naa daal man dàq aryan laa yakaadu yamujuhu man dàq aryan laa yakaadu yamujuhu ku ñam lem coow li lu mu bari bari ñu naan la neexut doo ko yàbbi ñam lem ñam lem ñu naan la neexut sëñ Babacar mu ne laa yakaadu yamujuhu mukk doo ko yàbbi de keroog dama wax lu wax bu benn wax danaa koy répété léeg-léeg ma ne dund yi naxaate mën naa ne mais dee di naxaatee yombut loolu moom mënul ne kuy naxaate ba faatu sa naxaate yi jeex na c'est fini nga suul nañ la jeex na naxaate yi jeex na way nekk ci biir bàmmeel di naxaate waaye mag buy naan ndox mu tàng xam ngeen ne waaye suukar saa tax nag ah waaw ñii dem Touba ak Tiwaawan ak Njaas mais dafa am lu ñu fa gis rek buñ fa gis doon seen bopp toog nañ ba tey koskaas gii di sol seen tën yi di ñaq di sonn di dem ci waawoon ci naaj bu tàng bi buñ ci gisutoon seen bopp toog nañ ah da ngeen cee gis seen bopp kat liggéeyalu leen kenn seen bopp ngeen di liggéeyal loolu la rek ku xamul nag léeg-léeg xamul waaw ba tax na bu <laughs> ko tuddee moo ma dugal ci yooyu yow xaalam ci Cheikhu Tidiane ndeysaan waaw ña ko xam daal moom bu ñu amutoon oto jaral na leen dox ak tànk ba foofa ndax ku fa dem rek boo ñëwee yëg ne def nga fa. waaw yàlla nañu yàlla suturaal bëggumaa yàgg foofu ndax dafa may dugal ci yeneen <laughs> Cheikh Basiir ñu ngi lay ziyaara kii sunu mbokkum daara la xëy na tey mooy yoona mu njëkk ci tund wi waaye aar daara gi ngeen di dégg ñu nekk ci fuñ ciy dem ñoo ci ànd ca membre fondateur ya la ci ñu sos aar daara ci la bokk amul daje bu ngeen mos a gis ñu def ko ba Koungheul ñoo ànd tournée yi ñu def yépp dem Touba Njaasaan Canaba Tiwaawan tournée yooyu yëpp ñooy ànd te boroom kër la mi ngi yor daara ca kër Masaar waaye teewul fu daara ji soxlaa rek mu jug taxaw moom it di doomu daara waaye di kenn ci tariixa bi bi mu gisee annonce bi ci Facebook bi la ma woo ne ma waaw ku la bëggoon a gunge nag ma ne ko sawar lool ci am. ku ma gunge ku mel ne Cheikh Mouhamadul Basir Guèye di suñu soppe di suñu lépp moom ñi nga am ci ànd ak moom sunu baay ji ñu koy ziyaara alhaji Yaadi Guèye dañoo gëj a gisee corona àlla boori corona corona kanam yu yu tedd yi ngay gise ñoom ndeysaan tout le temps corona ñëw rek xaj la kanam yi ah? waaw ndeysaan macha allah macha allah ah ñu ngi lay ziyaara bu baax di la wàccee sa wàccuwaay ah Cheikh Ismaïla moom duñ ko waxaat li ñu waxee dañ koy répété rek biñ ñëwee këram lañ dal defe naa añ ba moom Cheikh Bachir tey doy na ci seede ah, ah waaye bu bu bu bu teew bi nga fekkee rek waaye yi wees yi boo ko fekkee woon xam ne lawoon fa woon ñëwoon rek ba tax na ñu ñaanal ko ñaanal ay soxnaam yàlla defal leen barke yàlla defal leen barke barke Cheikh Oumar niñ doon waxtaanee. waaye moom it ñu ñaanal ko ngeen ñaanalal nu ko mooy sunu bunt bu ñuy dugg yeen këram moo xam ñu fekk ko fa wala ñu ñàkk ko faa fekk lañ yemale moom mbokk ma Ousmane sekk nekku fi waaye moom it wàccuwaay boobu lañu am buñ nekkeen di tax ca këram moo xam ñu fekk leen fa nag wala ñu ñàkk leen faa fekk buñ demee daal kër ga sunu këram ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko ñaanal ko yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal ah di nuyu nag sunu mag moom it ci ñi ma mere woon la bokk waaye léegi xam naa dana ma jéggal mooy Cheikh Ibrahima njaay moog mook nun ca sunu yeen yu njëkk ya la bi ñuy génn léegi kër Ismaïla maa ngi koy wax mbokk yi ma ne ko fii da néew na fuñ fi tàntalut ci tund yi waaw ndax 2007 ak léegi defe naa mu ngi bëgg a dooni fan waaye ca yoon yu njëkk ya moom mii di Cheikh Ibrahim moo ñu doon dalal ba léegi moo ñuy dalal te nekkoon rek ba léegi fa la nekk ci daara ji ci ca servisu su xadara bi waaye ci liggéeyu koskaas Cheikh Ibrahim yàlla yàlla guddal safan yàlla yàlla wéral la rakk ja di sëñ Ablaye Ndiaye moom it ndeysaan duñ ko mos a fàtte ci sunuy ñaan ndax moom it taxawaay yi Cheikh Ibrahim amoon rek la amoon. bor nekkoon boroom yitte di borom taxawaay yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xaare ko àjjana waaye ñi ngi ànd ak it sëñ mabba sëñ mabba jaa moom it di sëtu euh, góor ga alxaaji daawuda jab bu mbëllëxe moom it mi ngi ànd ak ñun nekk kenn ci nun xadara bi ngeen di gis ci stade bi lu jëm ci wàllu envoi wu xaalis buy jógee bitim réew ci loxoom lañ ko teg loolu rek am na lu bari lu muy wax hmm? am na lu bari lu muy wax wane rek ne mi ngi dëggal fi mu doon wala fi mu bokk ñañu doon mooy deretu wëli yu tabaarakallah moom it mu nekk kenn ci nu nekk ci kenn nekk kenn ci sëriñ Fata ñu ñaanal ko bu baax yàlla guddal fanam te wéral ko waaye ñu ngi ànd ak sunu doomam ndey di Cheikh Abdourahman jàlloo moom sunu soppe la loo bañ maxtaar jot ko rek bul ko ko wax maanaam bul ko ko wax gi mooy soo bañee mu pes la wala dóor la yar rek bul wax ci kanamam lu naqari maxtaar saar waaw léeg mu wow ma yónnee ma ay lien di kaas mu ne ko Abdourahman bàyyil doodu bàyyil ñooñu caravane bi day romb xaj yi di boobu kenn mënu ci dara waaye léeg soppe yi doo leen mën a contrôler ndeysaan ndax duñ bëgg dara nga dégg ko lu la naxari fekk yow yooyu di la métti métteetu la ndax miis nga ko miis nga ko miis nga ko till bi topp ci ginnaaw bëy dàq ko ba jege ko muy sëllëx suuf sa ci bëtam suuf soosu noonu du déranger till ba ndax objectif am mooy tax mooy bëy bii di ko sëllëx suuf si bu ca jotee fàtte suuf sam ko doon sëllëx ku am objectif yenn yi du la yëngal waaye soppe soppe la rek mu nekk sunu lépp may ñu ci boppam léeg-léeg àjjuma ju nekk moog nun nooy bokk yendu ca daara ja fu ñuy demit mu taal otoom bu ñu yorul oto moo yóbbu Mm, oto mu ngi ko bàyyi ca daara ja ñëw ngir yàlla ak ànd ak nun ñëw fii ci yéen moom it ngeen ñaanalal nu ko yàlla yàlla defal ko li mu bëgg yépp ci àddunaam insha allah ah ñi nga ànd ak it suñ caméraman waa Nabi TV li ko xaaj Souleymane waxee léegi ñoom ñoo yor Nabi TV Nabi TV nag tele daara ji la dafee ngeen jàppale ñoom Souleymane ci liggéey bi programme yi ñu koy mën di teewee incha allah Cheikh moor émission bi ngeen di seetaan mu tudd naan aaxiru ah ngóor siyee koy filme waaw bu ngeen may wër rek jàpp leen ko mi ngi nii waaw mooy filmer aaxiru zaman moom it ñu ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko te wéral ko ah guddi na amin waay sa ñaan googu neex na ma lool ñaanaat ko waaye a wax leen amin ndax ñaan gi nangu ni muy baaxee yëpp noonu la ñàkkee jom nag ndax amul soxna célibataire la ànd ak ñaari célibataire ci oto bi neexuma mais kenn ki dama koy suturaal ndax sama sëriñ la dafay ñu yemale foofu kàddu yi in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xatma ala al xafidana allahu min al afaati bi xurmati al qurani wa salaati asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Maxtaar jërëjëf yal yàlla fayal ñu la fa tabaarakallaahu li may nettali ngir gën a dëggal waxtaanam sëñ Maxtaar yàlla dafa dogal ma nekk ndar ci jumaay loodo jooju ma am fa ay weer di fa def sumay xalwa ku ni wax sëriñ Kuli Jóob Tëngéej la dëkk ku dëkk Mérina xam na ko nitu yàlla piir la sëriñ ko li nekk sindoon yi am lu ma jox ne ko ne ma liggéey ko ma liggéey ko ne gam-gam ma gis Cheikh Omarul Fouti mu ne ku la jox suma yëf ku la jox suma yëf ma xëy daw ci Serigne Kuli sindoon yi bi ma ñëwee wax wax ko sëriñ ko li mu ne billaahi wallaahi secret Cheikh Omarul Fouti la mu ne ma moom la liggéey ba fu mu jar tànk yi di marke ci xeer yi ma dem bàngo nekk fa di suufiyanke di ko liggéey ñu wan ma ko ñuy wax Alaaji Omar Nduur dëkk Ciki war ngeen koo xam nekkoon orloose ma ma jóge Ndar ma jóge Ndar wàcc jas diggante jas ak Ciki dama ko dox booba réer naa samay mbokk ñaari at ñu may war xamuñu fu ma ne ma ñëw Ciki di laajte Alaaji Omar Nduur musuma ko gis yàlla dogal ma ñëw laajte ko ñu ne ma kër gii la dëkk moom mu dalal ma yàlla dogal ñu yendu bi tisbaar ñu dem ci jàkk ji julli ñuy waxtaan ci Cheikh Omar mu ne ma billaahi wallaahi tallaahi Cheikh Omar bërki démb la jóge sama kër nee na dafa moom ci boppam dafa toog ba yàgg génn góor ñëw daldi ne ko Omar gane naa la nan dem jàkka ja nee na mu ànd ak moom dem jàkka ja mu ne ko xam nga lu ma fi indi du ma fi yàgg génte gi nga génte xam Muhammad di la jox liir moo ma indi di la jox liir di la jox ab liir moo ma indi moom ci boppam keroog ci jataay ba la ma ne est-ce que xam nga tubaab jalaaw ma ne ko dégg naa ko waaye demaguma fa mu ne Cheikh Omar këram la mu ne Cheikh Omar këram la du fa jóg Alaaji Omar Ndour ma delluwaat ndar nekk fa sëriñ kuli ñëw ne ma gis naa yonent bi génnal ndar ma téye sama xayma ñëw samp ko almeeri tiwaawan xalxuus dafa xalwa 41 jours ñu wan ma tubaab jalaaw ma sempi ñëw booba jàkka ji ay xeere fi ne ma ñëw samp fi isaa a ngi nii fekk ne lépp ma samp fi keroog papaam moo ñëw ne ma déedéet simple tànt bi samp ko ci tefes ga ba ma ko sampee ci tefes gi bëccëg de ma dégg baatu Cheikh Omar mu ne jógal foofu géej gi day ñëw billaahi wallaahi fay fay mu nga fa isaa su ma juumul ci nga bokk ñu doon sempi xayma bi ñu sempi xayma bi làq ko ci ginnaaw miir bi dugal samay téere te nee neen géej gi gëj naa agsi foofu wi laa dégg géej gi di dóor ci miir bi géej gi di ñëw na ba xayma bi fi mu nekkoon lekk na ko bay dóor ci miir bi ca suba ga ma toog laazim tàkkusaan ngi Cheikh Omar ci kaw tund wi mu taxaw xamatuma fu ma ne bi sama xel dellusee gisatuma Cheikh Omar te looloo gën a tuuti ci li ma leen wax ci barab bi moo tax ma ne barab bi fonk leen ko loolu rek laa doon dëgg salaamaaleykum sànq rek la may woo di ma laaj ndax jeexagul ma ne ko jeex na de waaye mu ne ma ma teew kon nag Seydou Nourou mu nga nële bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa Makhtar ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la baalu àq di nuyu ayima yi nekk yépp jiital si imam Mbodj ak imam Pape Alioune Ndione ak Baye Ndoye di beral nuyoo su suñu waajur war Abdoulaye Wade siis mooy baay yu borom tànt yi yàlla yàlla fay ko di nuyu Alaaji Yadi mi toog maa ngi def ay seede léegi si moom ma seedeel leen ne mag mu baax la mag mu mën a gunge ndaw si xadra bi am na cër ya nga xam ne man nga see defaroo mais man nañ la si xarab mais yàlla ngi dogal suñu diggante yàlla rek a tax may wax bépp tëddu koskaas bu ma génn si loxoom mi lay jaar te yenn damay dem mu dalal ma tatagal ma même bu ma yóbbuwul xaalis sax mu jox ma ay maa ngi koy wax léegi allah ji yàlla yàlla yàlla fay la xam nga donaloo moomul dafa diis te section Coskas bi ñuy wax fii mu commencé todd ba tubaab jalaw ñu ngi ko installé en 1981 1981 lañ ko installé sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko installé jox ko góor gu baaxoon ku gëmoon sëñ Babacar si ñu di ko wax Baye Gorom ak Njaay yàlla dogal mu ànd ak ak mag ñi dinaa ci cité góor gi ndarondooy mii ci biir bi ma yéegsee xale yi doganduma dama ne sañu ma sañu toog ci tànt mi te dugguma ziar parce que magu sëñ Babacar si la cité si ku mel ni góor gi àllaaj Sarr ñuy mag ñu baax mag ñu bëgg sëñ Babacar Sy yal na yàlla fay leen ci loolu dama toog maxtaar bi sama bàpp génne àdduna ñuy defar ay yére ñu toog ñun ñi ko war a doon ñoo na ja rafet na néegu ndey bi ñu jox ci kenn rafet na néegu bàyyi ñu ngi toog ñu jox leen nun nooy maye nun ñiy doon ñu ne rafet na mbokki pas-pas yi ñu yëkkati ci benn mboo jox ci kenn mag sama rakk boobu nga sunu xel dem ci bàyyi ndaraw bàyyi ndaraw ndoor bi ànd bu mu doon ànd góor gi ak fokk góor gi tollu woon nu ngi gërëm tam Sini Gaye mi toog Sini parce que tey donn bi bi mu jógee sa mag ñooñu jaar ci ñoom Pape Gueye bële ak Moustapha moom mii moo ko taw ba tey ku si mën a jot jot ci mu ngi nii toog bari na lu mu fi liggéey ba tey bi xale yi demee ba taxaw war ko mën a yor mu bàyyi leen ak lépp ngoon sii di ñu ngi lay gërëm di gërëm ñi nga bokkal ëtt bi am na la nga xam ne nag boo ko defee lay sa kilifa da ko dimbali. organisation bi keroog ba Ibrahima Seck ñoo wax ma ko dama santaat yàlla fii bi nu fay ñëw di dox li jëm ci tarixa bi fekkoon nañ fi mag ñi di fi liggéey macha allah lu am solo mais biñ ñëwee itam fekk nañ fi ay mag yi nga xam ne lu ñu fa bëgg daan nañ ñu gunge fii Makhtar sa toog di waxtaan tey sëñ a Aziz Al Amin mi toog defe naa def na fi ñaari yoon waxtaan. daayira jigéen ñi fi nekk moo leen jox tur yaay Soxna Gueye di présidente bi ñëwam yu mujj Papa Abdou Karim Bële di oustaz Moustapha Gueye moom la yebal fii ñaari conférence yi mujj moo ko def oustaz Moustapha Gueye moo ko def fii ngoon bu demee ba jamono tey xale yi ànd taxaw ne dañuy dekkil seen dëkk te defuñu ko len lu dul waxtaane mag ñu baax ñi ku mel ni Cheikh Alaaji Cheikh Omar Fuutu ni ko Maxtaar waxe kon yàlla yàlla fay leen ci loolu di wax ne liggéeyal nitu yàlla perte si te dégg naa si mag ñuy wax ne sëñ Babacar si daan wax ne ku ma lebal ker ma fay la guddi Maxtaar wax na léegi ku ñam faas xam la fa nekk dina bu jaree jaay say yére sax na ko jaay mais ñun ñi ñam ëttub sëñ Babacar si ñun ñi ko ñam te am na ñu nu ko gën a ñam sax def naa sañu ñoo dégg dara ma yaakaar ne dara lu nu war a yëngatu am na fa te du nu fa dem sañu nu ko li may wax alaaji yaa di mii doy na ci seen di gërëmtam Souleymane Ndiaye mële Souleymane ku neex a gërëm la xam nga lii tax ma ne ku neex a gërëm la ka nga xam ne day defar ba mu rafet mu ñëw jébbal la ko kii defar ba mu rafet ñëw jébbal la loo ko def lu dul ñaanal ko yàlla rek am na loo defal nga ko loo ko warul defal ngoon Souleymane ñu ngi lay ñaanal yàlla Abdou Karim boobu nag xaw ma ko sama doom la doomu Moustapha Gueye sama doom la mais yàlla ngi dogal miinuñu mais wax dëgg yàlla li ma dégg nga tagg Seydina Muhammad yaakaaru na boo demee nga ne sa papa Ibrahima Dia mu ngi lay nuyu jombul dina la wax sunu diggante ak sa bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ñoom ñëpp yàlla dogoon na xam nañ leen te ànd nañ liggéey si tarixa bi ah xale yi nag lii daal daa ngeen ko def muy rafet mais bu ren bi gën naa rafet dama ne nañu ñaan yàlla kenn at bu jot ngeen man ko def te feebar bi teel woon nu di ko def yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na ko fi yàlla jële nu ngi gërëm ñëpp alaaji yaat maa ngi lay gërëm bu baax wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne amoo jot ku nekk président fédération daayira bu Tëngéej ak Tëngéej li mu ëmb Tëngéej et banlieue ba pare nekk responsable ci COSCAS gis nga tenu COSCAS yëpp yii daw si Sénégal yëpp boo ñëwul ci yaat yi mii doo ko am yaat yi mooy joxe teni teni boo gis mu génn moom mi moo koy jaay moo xam mu dem Kaolack moo xam mu dem Rosso moo xam mu dem Gambie moo xam mu dem Italie moom mi boo joxul teni teni bi du génn mooy trésorier national bu Koskas loolu rek da wax dëgg yàlla loolu rek lu diis la mu dégg programme bi mu jaral ko mu dagg léppam ñëw bokk ak ñun yàlla yàlla fay la si loolu ah, dina la ñaanal yàlla rek kóolute gi góor gi amoon si yow. am na lu ma si xam sëñ Abdou wóolu gi mu wóolu woon yaadi mii am na lu ma si xam yaadi newul trésorier national bu koskaas mooy adjoint trésorier bi mais li muy doxal ci COSCAS trésorier national du ko doxal mooy génn xaalis mooy joxe tën yi lépp yaadi yoo koy def yaakaar boobu kilifa gi yaakaaroon Moustapha Al Amin yaakaare ko xadara bi yaakaare la ko yàlla na yàlla jàppale la Matar nag ah, wax dëgg yàlla tey moom macha allah xam naa tey boo ma meroon sax meri naa boo ma meroon meri naa parce que wax dëgg yàlla euh, ku sopp Seexu euh, El Hadj Omar Foutiyu rek tey surtout ma ay sëtam yi toog xam naa seen xol gën na neex te ñu waxtaanee ko nag fi ñu ko war a waxtaanee place boo fay waxtaanee loo fa war a waxtaan ñëppay kontaan ngoon yàlla yàlla fay leen <coughs> ah ñu ngi gërëm nag tubaab jalaw yëpp ñu ngi gërëm ñëpp bi kulliyati bàyyi ñu kenn rawatina nag président Ibrahima Seck bi ànd ak xale yi doon jéem a def discours bi mais nit lu mu jéemul du ko man jéem leen damay wax ne jéem leen taxaw leen. te tànk yéen a ngi taxaw rek suñu xel a ngi dal mas naa ko wax Alaaji Ablaay bi ngeen di wax keroog bañ koy dugal si daayira damaa toog mag sama pap muy dem Gàmbi ma xëcc ko ne ko góor gi kii nañ arrêté yoonam mu ñëw ñu ne ko deenu xool luñ la wax am ngam xel bu waree defu bu ma nee bu waree defu di nga si xam dara bu waree defu di ci si xam dara mu nangu ndigal ba yàlla dogal cër yi mu yore yëpp si loolu la ko jël ngoon na xale yi loolu laa leen di conseillé mbir mi daal jarul yàkkamti pas-pas bu wér dëggu fonk ndigal ak discipline koo ko def rek di nga jàll nun nag dañuy ñaan yàlla gis nga ni ko bàyyee suñuy loxo dañuy ñaan yàlla boo ñu dem ñu bàyyi ko si loxo yi set keroog ba sama papa gaañoo yaa day ngi nii waxuma kenn ne nañ ma fal posé sàkkandee da noo xoon ne nañ ko jox Baye Daouda Diouf dama xoon ne nañ ko jox góor gi Daouda juuf parce que moo góor gi moo ñoo àndoon di liggéey góor gi daaw ne duñ ko jox kenn Ibrahima Jaay lañ koy jox ñoom yaa di ñoo ko cautionné booba léegi nag maa ngi ànd ak samay mbokk mooy ñoom Sini Gay ñoom Ibrahima Seck ñoom Pape Seck Diop ñoom njaay Bab di tax ñoom Baye Ibrahima yenn kaw ñoom Dudu Gay tot ñuy liggéey liggéey bu set te bu ma leen amul woon wax dëgg yàlla liggéey bi dina sooxe ngoon ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant. di leen ñaanal yàlla xam naa dafa mënul woon ñàkk rek mais ah Souleymane de na sànni ay kaddu rek mais kaddu yi wax dëgg yàlla ñoo ko moomoon te na ah waaw di nuyu itam Jali Baye Jali mii parce que wax dëgg yàlla itam moom membre COSCAS bu convaincu kilo parce que moom boo xoolee moske la nekk. waaw commission mosquée la nekk Ibrahima Sow moo ko yor gars yi nee na taal bi sell mu bertaane daal wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm nag ñëpp xam naa baat bi tey dafa xaw a dee sax parce que day kàddu ga nga xam ne rek mënu ma koon ñàkk jël mais baat bi normalul tey di jéggalu ñëpp te ku xam sama baat rek xam ne baat bi normalul tey salaamaaleykum dafa bokk si ay xewal yoo xam te xewal yu rëy yàlla moo ñu ko jagleel yii si la bokk kon nag dañ koy sante yàlla bu baax dinaa nag euh, oustaz Makhtar comme lu ko arab yi di waxee rek laa fudda fuuka wala shallat yadaaka ahsanta barakallah yàlla la yàlla defal jàmm yàlla defal la sutura yàlla aar la xamal nga ñu loo xam te ñun sax ay sëtu Cheikh lañu wante xamuñu ko woon si Cheikh Omarul Fouti yi yaakaar naa jotaay bi gudd na lool macha allah wante kenn xàddiwul kenn sonnul kenn xiiful kenn marul kenn tàyyiwul ustaas wax na ko léegi fa bi zikrihim tatanazzalu rahma ngay wax mbaaxu góor yàlla yi rek yërmaande yàlla di wàcc te ñun bu nekkoon suñu sago day gën a yokk rek yërmaande yàlla na wàcc fii ba suba rek ate rek euh, jamono moo ñu ko mayul kon nag wax dëgg yàlla dañu lay remercier bu baax a baax Cheikh Oumar Fouti nag comme mu ko waxee rek baxarul laa saaxila la waaw da ngay fëy fëy fëy ba sonn rek te macha allah Sénégal mooy Cheikh Oumar Fouti moom la ñu wax moom moom la ñu war a wax moom mooy Sénégal waaw parce que Oustaz wax na ko léegi digganteem Cheikh Hadji Malick digganteem Ahmadou Bamba digganteem ah macha allah këru diine yëpp surtout macha allah suñu kër maam Abdoulahi Niass. kon nag wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax di gërëm nag képp koo xam ne rek teewoon nga fi rek parce que lii wërsëg la di gërëm nag macha allah Souleymane Ndiaye wax dëgg yàlla sonn na lool lool suñu teewaay na nit bu nekk daf ñuy message maa ngi koy nettali léegi Imam Ali Ndione di gërëm nag spécial Issa Ndione Issa wax dëgg yàlla tubaab jaloo ñëpp amal nañ ko jukkal ñun tey bu ñu amee sens ñëw tubaab jaloo Issa moo ko tax mu nekk ko xam ne tamit ko taxawul xadara Cheikh Oumar Fouti bëgg xadara bi lépp lu may def man moom laay woo fu nekk la may demal programme bu ñu doon def tibaab jaloo fii lépp loo xam te rek def nañ ko fii yàlla xam ne wàllu lekk lépp moo ko génne si poosam te xam naa doolem demul noonu kon nag wax dëgg yàlla ñun dañu leen sant di leen ñaanal Cheikh Oumar nag comme nu ko xalpulaay waxee rek nafoore meere meere la euh, fata ki euh, Maxtaar wax na ko léegi dem na Maroc daje fa ay naar macha allah ñu wane seen cofeel si Cheikh Omar Fouti yu man loolu tamit dab na ma tamit dem naa Côte d'Ivoire dama aéroport xaw ma fa kenn ma ñëw rek benn ñàkk euh, jublu si man gàttandu ma mu ne ma foo dëkk ma ne ko senegal ma ne ko yow foo dëkk mu ne man fii laa dëkk si Côte d'Ivoire moo tudd noo tudd ma ne ko Nuur laa tudd ma ne ma sant ma ne ko taal rek mu toog mu noppi ma ne ko da nga xam taal mu ne ah xam naa taal kenn ma ne ko koo xam ma ne xam nga Cheikh Omar kooku ñëpp ko kooku ñàkk la arab yi macha allah tamit def si moom tamit ay shahaada yu bari tamit ma wax na ko léegi dama tax benn borom xam-xam ñu naan ko Mouhamadou bul Mouhamadou Saïd Mauritania mu naan ko Cheikh Omar Fouti radiallahu taala anhu ayatun min ayatillahi fil ilmi wal wilaya wal mu naan ko imaamu nada cheikhul huda omaru rida salil said al murtada al majid al birr imaamun tawaa dunyaahu fi diini rabbihi wa anfaqa fi mardaati zulafa al amri xilaafatuhu akrim biha min xilaafa ay naar ñoo ko seede kon xam naa rek dañuy bañ a guddal rek ku nekk nag ñaan yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura lépp nag looy njëkk ñaan say projet ñaanal yàlla yàlla jëggal la say bàkkaat képp koo xam ne rek ànd nga fi bàkkat yàlla na ko yàlla effacé képp koo xam ne rek ànd nga fi njàkkar yàlla yàlla dindi jàkkar bi képp koo xam te ànd nga fi aajo yàlla yàlla faj sa aajo yàlla defal leen jàmm defal leen sutura mais nag ñun ñëpp nag nañ ñaanal nag Imam Makhtar Sarr wax dëgg yàlla suñu sag la sagu diina gi la sagu tarixa bi la jël lépp nag ñun ñëpp suñu kàddu ñëpp suñu benn làmmiñ yéesalaat yéene bi te ko si imam suñu sëriñ suñu imam suñu xarit suñu kóoleere suñu lépp macha allah te moom moo fi wutu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaanal mbooloo bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu déet ndigal la alamin noonu la ñu ko ñaane woon tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin oustaz Mokhtar nu ngi lay ginnaaw ba nu la massoo coono ngi lay ñaanal yàlla fan wu gudd wu ànd ak wér dëgg yàlla kenn nga ci généraux yi lislaam yi dañu lay bàyyi xel ci saa bu nu laalee lislaam rek mm-hmm. dangay mel ni sa famille lañu laal dégg naa say xuloo ba tàyyi ci xale yi ñuy détourné mm-hmm. du benn xuloo de yu bari sax ah <laughs> waaw te yàlla nee xuloo nag mënu la ñàkk waaye na rafet rek wajaadilhum waaye nag billati hiya ahsan yal ne xuloo la ñàkk waaye na rafet na rek nag day jekki mu am de dafay nag mu jar ko nag waaye xuloo dañ koy man nag waaye xuloo du rek ak saaga waaw yàlla na day da ngay toll foo xam ne nag fokk nga xuloo nag waaw waaye nag billati hiya ahsan am nag noonu la koy defee xale yi ñuy wëlbati xale yi ñuy yàq bëgg def seen métier lépp mu nekk fecc ak taati neen nañu ko bàyyi dégg naa ko ba tàyyi mu am tam taxawaay bu bu responsable bi ca mujj ma dégg ko mooy problème mu Iran Ndaw àndu caak ñu bari ca nañ ko doxale te loolu lu jafe la nag gaa ñi léeg-léeg bu ñu xoolee fenn dañuy bëgg rek ñépp xoolee foofu te nag fukki démb yu rafet démb benn bu ñaaw tey waru koo effacer wax ne ku démb ki moom soxla nanu ko na dellu taxawaay bu rafet la ci am waaw ndax ay saagaa ki gedd du ko ja du jariñ fekkee ne loo bon le rek sànni ko ku juumul nga sànni benn peru salaatal faatihi ayatul kursi qul huwallahu ahad falaqi ak naasi ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala jataay bi yàlla noonu ko yàlla nangul gannaaw bañ ko defee hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu yéene waale ci sëñ maxtaar mi yàlla aaral ñu ko làqal ñu ko fu yàq eggul ak mboolem kuy liggéeyal diine ji yàlla na ko yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala aaral boppam bismillah yàlla na yàlla faj aaju biir yi ak aaju biti yaa rabbi astajib duaana wala tuxayib saydi rajana bi xaqi laahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wa misaani alxuyudaati alilahiyati xaqiqati sayidina muhammadin nabiyi alxaatimi alfatixi xayri xalqillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ansaari almillati islamiyati salaatan wa salaaman taxabu lana biha salaaman min chaxatika wa xadabika wa makrika wa taftaxu lana biha abwaaba al arzaqi wal xayraati wa tunjina biha min charri jamii al xalaaiqi kaafiran wa musliman wa min fitnatihim wa madaratihim wa musibatihim jamian ya arhamar rahimina ya rabbal alamin ya rabbi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin aslu kalimu tayyib wala qawlu salih